gën ñëpp di dalal ñëpp rawatina sëñ bi nga xamante ni moom lañ sàkkoo ci moom mu xamante ni moom lañ bëgg a waxtaane te muy Serigne Ibrahima Khalil mawdu bi ñu bëgg a waxtaane nag te mooy lu aju ci alquranul karim ak daara yi nga xamante ni fa la ñuy jàngee alquranul karim duuru taxfiz alquranul karim taqyimul injazat wa tasawuru tatalluat loolu mooy li nga xamante ni moom lañ bëgg a waxtaane te mooy daara yi alquranul karim yi li nga xamante ni jot nañ koo liggéey ak fi nga xamante ni jot nañ faa egg ak it suñu xamee tolluwaay boobu nga xam ni ci la daaray alquranul karim yu toll fan lañ war a jëm suñ teqee suñu tànk bëgg a jëmaat ci kanam naka lañ koy defe parce que nit kat su nekkee ci mbir war naa xam mbir ma fan la ca toll dëgg xam bu baaxet fan lay jëm ndax mu mën a gàttal aw yoonam ba mu yomb ko lool mu egg yi nga xam ni fa la jëm mawduu boobu nag ñu tànnoon sëriñ Ibrahima Khalil mi nga xamante ni jël ñu koy xamle ci gox bi ndax nekk na koo xamante ni ay yëngutoom xam nañ ko fi bu baax a baax te it fii la cosaanoo fii la féete fii la dëkk ba na daanaka jërut ñu ko fi xam dana doy rek ñu xam le ni ci alquranul karim la yëngutu te ñun ñëpp xam nañ loolu ba tax na te yàgg na ci yëngutu it taxawewu na ay daara yi alquranul karim ba tàyyi te it daara yi alquranul karim yooyu nga xamante ni ci ay loxoom la ñu tege wala ci ay loxoom la jaar bokk nañ ci daara yi nga xamante ni ay daara yi exemplaire lañ boo xamante ni ñëpp teg nañ seen bët ba tax na suñ ko joxee mawdu bu mel nii mu war cee wax kon dañ koo jox ka nga xamante ni moo ci yëngutu ka nga xamante ni waxtoom suba ngoon ca la koy def ba tax na danañ yaakaar lool ni la mu cay wax day nekk loo xamante ni an tajriba lay doon lu mu gëstu loo xamante ni da cay yëngutu xam fi mu toll mën ñu caa wax loo xamante ni danañu jariñ njëkk ñuy dugg ci mawdon bi duma ci sori ndax conférencier bi dana ci ñëw damay dañuy sàkku rek ñu ubbee jotaay bi lenn ci ay alquranul karim comme que alquranul karim lañuy ñuy waaj a waxtaane ak daara yi alquranul karim ñu ubbee ko ay alquranul karim kiñ bëgg nag mu jàngal ñu lenn ci ay ay alquranul karim ci wàllu boobu mooy al akh Mouhamadul Amine Ndiaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين الرحمن عهدا كلا سنكتم ما يقول ونرد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة يكونوا لهم عزا كلا سيقفون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم غردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم لا.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 suñu buntu waxtaan ni ñu ko dégg mooy dooru taxfiz al quran al karim taqyimu al injazat wa tasawur al tatalluat maanaam daara yi ñuy jàngee al quran al karim mu natt li nga xam ne jot na koo amal ci ay jéego natt nag buñ ko waxee ñaari bet yépp lay doon la nga xam ne moo cay yu ñu jàpp ne yu am solo la ñu war koo xam war koo fexee yokk ak lu ñu jàpp ne ay manki manki la moom ñu xam ko jéem koo néewal euh, jéem itam xalaat fi nga xam ne fa lañu bëgg a jëm ak daara yooyu ndax jëfi doomu aadama ju nekk moom noonu lay demee jamono bu nekk war nay bàyyi xel lim jot a def lu ca rafet mu yokk ko lu ca mel ne neen itam mu jéem koo gën a rafetal waaye di xalaat itam toujours nag fi nga xam ne fa daa fa laa bëgg a yegg waxtaan wi incha allah dinañ ko ubbee benn gendeku ci jaar-jaar yi njàngum alquran benn nubta taarixiya an nashati duuri taxfiz alquran alkarim wa tatawuratiha benn gendeku boo xam ne dañ ciy romb ci cosaanul sosug daaray alquran ak fi mu jaar euh, beneen tomb boo xam ne itam danañ ci gendiku jaar-jaar yi nga xam ne jaar na ko ci sunu barab bii ñuy dund gox bi nu nekk te ñu gën cee jagleel fii di suñu réew mi tuddee Sénégal fi ci njàngum alquran jaar ci ak tënk jaar-jaar yooyu itam danañ ko ci ñetti tolluwaay ndax njàngum alquran ab xaaj la ci wooteb lislaam kon tolluwaay yi wooteb lislaam di am jamono bu nekk moom it da jël wàllam ca tolluwaay booba ba tax na ñetti tolluwaay yi nga xam ne wooteb lislaam bi romb na ko fii ci sunu barab bi ci tolluwaay yooyu ci lañuy xool xool tolluwaayu daaray alquran tolluwaay bu jëkk ba mooy lu jiitu euh, turuqu suufi yi di jiite daawa bi ci réew mi ña fa woon waaye nag yoruñu woon baat ak ak goo xam ne bokk naag gi ñu mujj yor gannaaw fatra booba la jiitu lool ñaareelu fatra ba mooy biñ demee ba saamatu turuq suufiya bi ñu demee ba seen kilifteef ak seenu jiite daawa bi fés beneen tolluwaay ba mooy bi ñu demee ba bu mujj bii nu toll muy ab taxawatul islamiya moom itam bi nga xamee dem na ba fis ci daawa bi ba bu ko jiitewul itam am na ci place lool ràññi ko na ci boobu itam dañ ci xool tolluwaay bi ci daaray alquran yi am benn tolluwaay bu nekk nag la ca am ci ay ijabiyaat muy ay mbir yoo xam ne yu ñëw jàpp ne yu jub la ak la ca am ci ay rëq-rëq ñu doog a tëje nag li nga xam ne moom lañu ñu yaakaar ne foofa la daaray alquran yi war jëm tudd lenn ci ay iqtiraxaat ay xalaat yoo xam ne jàpp nañu ne bokk na ca lay jàppandal jëm nga foofa dinaa jégglu nag mbokk yi ndax xam nañ dañu daje fii ay talabatu ilmi lañ li ñu miin ci ay wax mooy wax ju nekk ñu di ko wutal ay source muy ay masaadir waaye xam ngeen ne bunt bu mel nii loolu daf cee jafe masaadir yoo xam ne yu ñu bind la jafe na ci lool ba li ci gën a bari ku ciy wax bari na ci loo xam ne ci ay tajaaru saxsiye muy say jaar-jaar yoo xam ne fekke nga ko wala boo ñu nettali la ko te nga wóolu fa nettali ya jóge lu ci bari foofu lay tege kon bu ca néewee fu ñu leen di mën a delloo ci foo xam ne dañ fa mën a seeti li ñuy wax ñu xam ne tabiatul baxs bi muy melokaanu waxtaan wi moo demee noonu euh, diine l'islam ni ñu ko xamee dafa sukkandiku ci xam-xam lay gën a firndeel loola suñu boroom subhanahu wa taala ngi tàmbalee wàcce waxyu gi di alquranul karim ci baatu iqra xam ngeen ne ndigal yi ak tere yi bari nañu lool ci lislaam waaye baatu ndigal boobu mooy bi nga xam ne moo njëkk a dikk ci ndigali suñu boroom yi tabaraka wa taala yi mu njëkk a wàcce ci alquran te alquran xam nañu ne mooy cosaanul mboolem xam-xami diine mboolem xam-xam bu ñuy jàng ci diine cosaanam mooy alquranul karim moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki njëkk a jàng alquran jàngale ko moo jiitu ci jàng alquran ak jàngale ko ndax mi ngi doon jote alquran mu jóge ci borom bi subhanahu wa taala di jaar ci jibril alayhi salaam moo tax borom bi ne ko wa innaka la tulaqa alquran min ladun hakimin alim suratu naml borom mi ne ko yow de yaa ngi jot alquran fan lay jóge min ladun hakimin alim mu jóge ci borom bi nga xam ne la ku xam la kon moom moo njëkk a moom la njëkk a sa alquran mu jóge ci borom bi tabaraka wa taala borom bi dellu ko wax ne laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bi inna alayna jam'ahu wa qur'aanahu fa idaa qara'naahu fattabi' qur'aanahu fa idaa qara'naahu fattabi' qur'aanahu kon ci borom bi tabaaraka wa taala la ko doon jële mu ne ko bul di baral saw làmmiñ di yàkkamti nooy jànge alquran ngir xëy na bañ koo fàtte mu ne ko man yàlla danaa ko boole danaa ko dajale ci sa dënn su fekkente ne jàngal nañu la ko na nga topp ni ñu ko jànge loolu ci ngay dégg ne kon moom da ko doon jàng am fu mu ko doon jële fu mu koy déggee di ko jàng moom itam tumma inna alayna bayaana borom bi ne man yàlla itam maa loo faram fànce ko leeral ko ba leer nañ naka noonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon na soññ saxaaba yi ci jàng alquran ak jàngale ko gannaaw bu mu ko jëlee ci boroomam mu jaarale ko ci jibril alayhi salaam te jibril du wàcc andi ab aaya lu dul ci ndigalul boroom wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik nee na duñu wàcc lu dul te digalul borom yonente bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw bu mu ko jàngee daf ko doon jàngalewaat saxaaba yi ñu jële ci Usmaan ibnu Affaan radiallahu anhu mu jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam hadis bi nga xam ne bu siiw la xayrukum man taallama alqurana wa allama gannaaw ku gën la wax ci yéen te xam ne ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo gën ci xeet bi moo gën ci nit ñépp sax te nee ku gën mooy ci jàng alquran di ko jàngale xam ngeen ne lool kenn du ko ci ci jàng alquran ak di ko jàngale hadis boobu rawahul buxaari ñu jële ci Uqbatu bnu Amir radiyallahu anhu mu ne xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa nahnu fi suffa fa qaala ayukum yuhibbu an yaxduwa kulla yawmin ila buthaan aw ila alaqiq fa ya'ti binnaaqatayni kawmaawayni fi gayri ismin wala qat'i rahim fa qulna ya rasulallah nuhibbu dalik qaala afala yaxdu ahadukum ila almasjid fa yalamu aw yaqra'u ayatayni min kitabillah azza wa jal xayrun lahu min naaqatayni wa talaatun xayrun lahu min talaat wa arbaun xayrun lahu min arba wa min adaadihinna min al ibil rawaahu muslim Ubatu bnu Amir mu ngi bokkoon ci ahlu suffa mu ñooñu doon toog ci jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ak ñàkk ak tumuraanke koo xam ne taxoon na ñuy taxoo jàkka yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu ko ñëw ci ay sarax yonente bi alayhi salaatu wasalaam di leen ca jox nee na benn bis nekk nañ foofa yonente bi alayhi salaatu wasalaam fekk du fa ne waaw ndax kenn ci yéen bëgg na xëy dem ci place bu ñuy tudde bët xaar wala aqiq ay barab lañu mu ne mu dem fa fekk fa ñaari gëléem yoo xam ne da koy jël rek te du ca am benn bàkkaar maanaam du yëfi kenn du ca ñaawal ak mbokkitam a da koy lew doomu daal ndax kenn kenn bëgg na lool saa boo xëyee rek dem foofa fekk fa ñaari gëléem yoo xam ne da ngay wommat rek yóbbu te dara du la ca fekk ñu ne ko ah loolu kay ñun ñëpp ko bëgg mu ne waaw kon lu tee kenn ci yéen xëy dem ca jàkka ja xam lu fa wala jàng fa ñaari aaya ci téeréb yàlla bi mu ne loolu day moo gën ci moom ñaari gëléem yooyu muy am bu dee ñetti aaya noonu la ngëneel lay gën a yokkoo bu dee ñeent la noonu lay ngëneel lay gën a yokkoo ci lim bu toll loolu ci ay gëléem ñetti aaya moo gën ñetti gëléem ya ñeenti aaya moo gën ñeenti gëléem ya xam ngeen ne jamono boobu gëléem mooy alal ji nga xam ne moo gën a ràññiku ku bari gëléem moom lañ daan jàppe ku bari alal ni ñuy waxee milliardaire wala millionnaire xam ngeen ne loolu ab soññ bu rëy la gënal ko ci kaw li nga xam ne moom la nit ñi gënoon a bëgg mu ne leen nga dem jàng benn aaya wala ñaari aaya moo gën nga am alal ji toll noonu bi nga xamante ne mbooloom l'islam mi tàmbali na di yokk muy jullit ñi saxaaba yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam jël na kër bu mu jagleel jàngale mu jaarul arqam ibnu abil arqam mu def ko place boo xam ne dafay dajeeg saxaaba yi di leen jàngal li jot a wàcc ci alquran mën nañoo wax ne kër boobu mooy daara ji njëkk ci daaray alquran fekkee daara mooy barab boo xam ne dañ ko wut jagleel ko di fa daje ngir jàng alquranul karim kon barab boobu moo ci jiitu jële nañ ci saqiqu saqiqum nu salama mu ne xatabana abdullah ibnu mas'ud radiyallahu anhu fa qaal wallahi laqad axastu min fii rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bid'an wa sab'ina suura wallahi laqad alima ashabu nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anni min a'lamihim bi kitabillah wa ma ana bi xayrihim qaala shaqiq fa jalastu fi lxilaq asmau ma yaquluun fa ma samitu raddan yaqulu xayra dalik muttafaqun alayh ñu jële ci Saqiif na Salama mu ne benn bis tey Abdullah ibn Mas'ud doon da xutba daal di wax ne maa ngi giñ ci yàlla ni jële naa ci gimiñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam juróom ñaar fukki saar ak lu topp loo xam ne ci gimiñam mu saatoxatal laa ko jële ci moom dafay wax may dégg di jële ci moom mu ne maa ngi giñ ci yàlla ne saxaaba yi xam nañu ne bokk naa ci ñi gën a xam téere yàlla bi ci ñoom lémul anni a'lamuhum anni min a'lamihim la wax bokk naa ci ñi ci gën a xam téere yàlla bi mu ne leen waaye taxul nag ma gën leen shaqiq nee na toog naa ci xelak muy ci géew yu ñuy jànge alquran yu bari toog na maag sëriñ yu bari waaye dégguma kenn ko weddi loolu Abdullah ibn Mas'ud wax fa maa tameeku rabdan yaqulu xayra dalik gannaaw ba saxaabati saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim gannaaw bu ñu ñoom it jàngee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye daanañu jàngalante ci seen biir même ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam daanañ jàngalante ci seen biir ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo leen doon xiirtal ci ku jàng alquran nga jàngal ko keneen di xiirtal ñiy jàng itam ñuy jànge ci ñi gën a xereñe alquran ñu jële ci Masruq qaal sukira Abdullah ibnu Mas'ud inda Abdullah ibni Amrin fa qaala xaaka rajulun la azaalu uhibbu sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul xutul qur'ana min arba'atin min abdullah ibni mas'udin fa bada'a bihi wa salim mawla abi hudayfa wa muaaz ibni jabal wa ubay ibni kaab muttafaqun alayh masruq nee na mas nañoo toog fii abdullah ibnu amrin nee na ñu tudd fa abdullah ibni mas'ud mu ne ko day waaye la joo xam ne du ma deñ di ko bëgg ndax damaa mas a dégg yonente bi alayhi salaatu mu ne na ngeen jële alquran ci ñeent ndax mu soññe ci de ñeent ñooñu seenu man alquran tax mu ne na ngeen jàngee ci ñoom mu tàmbalee ci Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Amr ne mu ne fa bada bihi jëkke gi mu ko jëkke teg te Salim Mawla Abi Xusayfa teg ci Muaz ibn Jabal teg ci Ubay ibn Kaab ñu jëlee ci Abdullah ibn Mas'ud aydan anna Aba Bakrin wa Omar basharaahu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man ahabba an yaqra alqur'ana gaddan kama unzil falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abd rawaahu ibnu Maaja Abdullah ibn Mas'ud nee na Abu Bakar ak Omar radiyallahu anhuma dañ koo bégal ne ko day yow day dégg nañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ku bëgg a jàng alquran bu bees tax mel na wàcce woon na nga ko jàng ci ne ko ibnu ummi abdi di jànge te mooy abdullah ibnu mas'ud loolu mooy tekki ne kon njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci saxaaba yi joxe woon na ay résultats ba am ñoo xam ne am nañu daraja yi mën a jàngale alquran te booba sax yonente bi salaatu wasalaam mi ngi fi ñu koy jàngal keneen bi nga xamee ne nag njàngaleem yonente salaatu wasalaam kon feeñal na ay ndonga yu ràññiku ci man alquran yonente bi alayhi salaatu wasalaam wóolu leen ba tàmbali di leen yabal sax ci yeneen gox ngir ñu jàngal nit ñi alquran yabaloon na Mus'ab ibnu Umayr ak Abdullah ibnu Ummi Maktum Madina ngir ñuy jàngale alquran moo tax jël ci Barra ibnu Azib radiyallahu anhu qaal awalu man qadima alayna min ashaabi nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Mus'ab ibn Umayr wa ibn Ummi Maktum fa ja'ala yuqri'aanina al-Qur'aan fa ja'ala yuqri'aanina al-Qur'aan rawaahu al-Buxaari Bara ibn Aasib ne ki njëkk a ñëw ci nun ci Madina ci saxaaba yonente bi alayhi salaatu wa salaam mu ne mooy Mus'ab ibn Umayr ak ibnu Ummi Maktum mu ne ñu tàmbali di ñu jàngal alquran te kon ñooñu dañ leen a yabal ngir ñu jàngale ji alquran ko gannaaw loolu itam as-salafu saalih ci seen gannaaw mu ñu topp ci ñoom ñëpp ci ñoo xam ne ñu ngi ci ak njub doon nañ jitti woo lool mokkal alquran waxuñu jàng ko rek waaye mokkal ko cheikhul islam ibn taymiya rahimahullah mu ngi wax ci majmuul fatawa xaaju ñaar fukk baa ngi ñett xatum juróom fukk ak juróom mu ne wa amma talabu xifsi alquran fa huwa muqaddamun ala kathirin mimma tusammihi annaasu ilma wa huwa imma batilun aw qalilun naqd min tey moom wax mu ne amma talabu xifsil quran mu ne sàkkoo mokkal jiital ci bari lu nit ab xam-xam te nee na loolee imma batil aw xalilu ndab loolee ñuy tuddee xam-xam nee na benn neen rek la wala lu néew jariñ la mu ne wa huwa aydan muqaddamun fi taallumi fi xaqi man yuridu an yataallama ilma ddin min al usuli wal furu mu ne moom ba tey moom mokkal alquran jiital nañ ko ci àqi képp koo xam ne bëgg naa jàng diine tàmbalee ko ca usul ya ak furuu ya mu jàng diine lépp bëgg am xam-xam nee na kooku ci àqam bëgg nañ mu jiital jàng alquran mokkal ko mu ne fa inna al masrua fi xaqi misli hada fi hadihi al awqat an yabdaa bi xifsi al quran fa innahu aslu ulumi ddin bi xilaafi maa yafaluhu kathirun min ahli lbida min al aajim wa xayrihim haytu yastaxilu ahaduhum bi cheyin min fuduli alilmi walkalaam aw aljidaal walxilaaf aw alfuruci alnaadira aw altaqlidi allati la yaxtaaju ilayhi aw garaa'ibi alxadiis allati la tasbut wala yuntafacu biha wa kathirin min alriyaadiyaat allati la taqumu alayha xujja wa yatruku xifsa alquran allati huwa ahammu min dalika kulli xanaa kalaamu ibn taymiya mu ne fa innal masru li nga xam ne moom lañ yoonal ci àqi ku mel nii nga xam ne daa bëgg am xam-xamu diine ci waxtu yooyu mu toll ci tàmbali nee na an yabda bi xifsi alquran na tàmbalee mokkal alquran ndax nee na kat fa innahu aslu ulumi diin nee na alquran ak mokkal ko loolooy cosaanu xam-xami diine mu ne bi xilaafi maa yafaluhu nag kathir min ahli bida mu ne nag lu wuuteeg li ñu bari def ci ñi nga xam ne ay toppikati bida lañ nee na di soxla woon loo xam ne fu duuru la ilmi la maanaam aw desit la ci xam-xam lu mën a ñàkk la min al kalaami wal jidaal loo xam ne ay wax ak ci werante rek lay doon wal xilaaf awil furuwa naadira wala yoo xam ne yu raar la awit taqlidi allati la yuxtaaju ilayhi wala ñuy dem sax di toppandoo keneen ci aw doxalinam woo xam ne mënoon nañ ko bañ a aajoo ndax buñ jàngoon usulu diin duñ aajowoo taqlid boobu muy toppandoo gi ñu toppandoo keneen nee na wala ñuy yittewoo garaibul xadis allati la tasbut nee na hadis yi tumuranke yi nga xam ne sax pour nga saxal ak wéram lu jafe la nee na kenn du ca jëriñ mun nañu yittewoo yooyu yëpp wa yatruku xifsa alquran alladi huwa ahamu min dalik waaye nag mu ne fala budda fi misli hadihi al masala min altafsil mu ne nag bi ma joxee mokkal alquran daraji bi yëpp nag mbir mi ajara leeral mu ne wal matlub min alquran huwa fahmu maanihi wal amalu bihi fa in lam takun hadihi himmatu haafidihi lam yakun min ahli al-ilmi wa diin wallahu subhanahu wa taala alam mu ne nag la ñu sàkku ci kii jàng alquran wan matlub min alquran kon mi ngi leeral foofu hadaf biñ jublu ci kuy jàng alquran loo war a jublu ndax mu jaroon nu mokkal alquran rek dem sa yoon mu ne wan matlub min alquran li ñu jublu ci jàng alquran huwa fahmu maanihi wal amalu bihi alquran njàng ma jubluwaay ba mooy dégg ko jëfe ko mu ne fa in lam takun haadihi himmatu xaafidihi lam yakun min ahli al ilmi wa diin nee na bu fekkee lii day nekkul yitte ki koy jàng jéemu koo dégg jéemu koo jëfe nee na kooku kenn du ko askanale ci borom xam-xam yi doon ne sax day sare alquran fu mu mën a toog kenn du ko askanale ku am diine ndax alquran ku ko déggul doo mën a am diine loolu mi ngi ci majmuul fatawa gis u saalis wala isrin xaaj yu ñaar fukkeel baa ñett ci safxa xam saw xam tiib ku fa dellu da nga gis wax ji Ibnu Taymiya wax al-Walid ibnu Muslim wax na ne kunna ida jalasna al-Awzaa'i fa ra'a fiina hadasan qaala ya gulam qara'ta al-Qur'aan fa in qaala naam qaala iqra yusikum llahu fi awlaadikum wa in qaala laa qaala idhab taallami alquran qabla an tatluba alilma aljaamiu li axlaaqi alraawi wa adabi alsaami lilxatibi albaghdadi aljuz'u alawwal safa itnain wa arbain walid ibnu muslim nee na buñ masaa toog ci al imaamu al awzaa'i nee na mu xool xalqa bi mbooloo mi gis ci xale bu ndaw dinaa ko eh yaa xudaam yow ngóor si ndax jàng alquran ne bu ne ko waaw mu ne ko taril ma yusikumullahu fi awladikum xam nga def foofu fu jaxasoo la ndekee du suñ mag yi réew mi rek ñoo ko daan nattoo nit ñi waaye lu yàgg la foofu miraas lañ ci jàngale dafa niroo nee na su ne ko mukkaluma nag mu ne ko aywa demal nga jàngi alquran bala ngaa jàngi xam-xam loolu alxatibul baxdaadi tuddee ko ci téeram bi muy tuddee axlaaqu raawi wa aadabu saami ca gisul awal ba xatum ñeen fukk ak ñaar loolu kon am muxaddima la woon ci tàmbale ci yonent bi alayhi salaatu ak saxaaba yi ak ñi ci toppoon ci nit ñu baax ñi nit ñu doon yittewoo njàngum alquran di ko mokkal di ko def laltaay bi nga xam ne moom la ñuy jiital ci sàkku xam-xam am naa jaar-jaar yi nga xam ne daara yi alquran njàngoom alquran jaar na ko ci sunu réew mi ndax dañuy gàttal rek maraaxil yi mu jaar yëpp daal di ci sunu barab bi nu dëkk ndax mbir mi gën a mën a doon lu ñu gën a mën a dégg gën ko mu gën a jegeñ ci nunu itam ndefi mu jaar bari na lool waaye comme loolu lépp xajul ci benn waxtaan dañuy seet rek li ci gën a jege xam nañ ne kon jullit ñi mësuñoo deñ di yittewoo jàng alquran di ko mokkal ak di ko jàngal seeni doom ci mbooleem tolluwaay yi nga xam ne taarixul islam jaaba ci suñ gox bii nag di xarbu Ifriqiya muy Afrique de l'Ouest bu ñu gënee jagleel li ñu ciy tuddee Sénégal nekkul lu ñu mën a génne ci yittewoo boobu nga xam ne jullit ñi fu ñu mën a nekk doon nañ ko yittewoo jàng alxuraan wala sax mi wax wax ne sunu gox bii dox na ci jéego boo xam ne bu rëy rëy rëy na ci jàng alxuraan ak di ko mokkal ni ma ko waxee woon bu ñu bëggee te tolluwaay yooyu nga xam ne njàngum alquran romb na ci dañ koy xool ci ñetti tolluwaayu jamono yooyu moo xoon ne daawa bi toll na ko doonte daaray alquran yi ci toll ñetti tolluwaay yooyu yëpp bokkale nañu lu bari am na melokaan yoo xam ne moom tëgg wut ak moom benn yoon ca bu njëkk ba muy lu jiitu zahamatu turuqi suufiya wa fi zilli zahamatu turuqi suufiya wa fi zilli al tahwa al ñetti taarix yooyu yëpp benn bu ci ne daaray alquran niroo na ne ci ay mbir yu bari waaye teewul na benn tolluwaay bu ca toll bu nekk am na lu ko ràññeetle ak beneen ba ca des ca tolluwaay bu njëkk bi mooy jamono bi nga xamee ne daaray alquran ñoom mën nañoo wax ne booba ñoo fi yore zaama diine yi bi ñiy jàngale daara sëriñ daara yi booba ñoo fi nekk booba tuux suufiye yi suufi yoon yaa ngi fi waaye ay afraad lañ rek waaye am ay tajammuaat am surta markaziya maanaam mbooloo mu dajaloo yor baat bu am solo comme ni mu amee booba amagul woon booba njiiteeg diine gi baatub diine bi sëriñ daara bu daanaka dafa am istiqlaal zaati daanaka kilifteefu boppam moo ko di yoraale kilifteefu gox ba mu ne ci wàllu diine ndax booba bu dee ci wàllu adda buur yaa ngi fekk yooyu moom booba ci côté am na bi ñoo koy dox waaye nag ci wàllu diine gi moom la nit ña doon dellu ci diine ci sëriñ daara yooyu lañu daan dellu donte nag amuñu woon nufuuf amuñu woon baat bu toll ne bi kilifa yi eh, yi am waaye amoon nañu baat loolu lañ leen déggal waaye nag tolloowut ak baax bi nga xam ne moom la kilifa yi am gannaaw bi kilifa yi tarixa yi ndax suñu xamee ne l'islam façon bi mu dugg ci biir Sénégal boo xamante ne buñ ko mënee tuddee mën nañ ko tuddee al aswaiya maa daa daanaka daal duggiinu sandale la du programme bu leer bu ñu tëral ñi ko fi doon dugal nekkuñu woon ñoo xam ne loola rek da leen a tax a jóg ñu tàggat leen ba ñu nekk ay doxaat comme ni yonente bi alayhi salatu wasalaam préparé woon saxaaba yi ba ñu man alquran mu yabal leen ci gox tëral leen li programme ndax gis ngeen ba mu yabalee Muaz ibnu Jabal Yaman la mu ko wax tëralal ko programme fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi gis nga ma ngi koy tëral programme shahadatu an la ilaha illa allah fa inhum ata'uka li dhalik gis ne danga ko tërale da nga leen njëkk woo ci tawxid suñ la ca toppee nga woo leen ci julli suñ la ca toppee nga woo leen ci adaka ba mbir ma jeex kon dañ ko préparé ba noppi jox ko programme loolu nag dafa wuuteeg ñi doon andi daawa bi fii ci Sénégal ni ñu ko jàng ci histoire ñu ci bari ay commerçant lañ doon doon rek ñoom loolu taxu leen woon a jóg bu leen nit ñi gisee melokaan bi ñu yor gis ne moo gën ñoom melokaan bi ñu yor ñoom ak yiw gi ñu yiw ak dëggu gi ñu dëggu ci seen jëflante ñoo xemmeem lañ ñu nekk di leen laaj te ñu ca bari du ñu nekk sax ay fuqaha waaye lan jot a xam ci diine ñu wax leen ko su ko defee kon léegi ñu jël fii léegi léegi ñu jël fii amuñ ci kenn ko toog koo xam ne loola day liggéey yitteem de muy dox ja ko a jóg bu jeexee mu dem jot na faa wax nag la mu xam bu keneen ñëwee noonu kon da jël fii di jël fii tey daanaka la ngay jël mooy la leen laaj wala na nga gis ñuy def amaa loo leen laajul wala gisoo ko ci ñoom bootul da nga cay continuer mel ne ca ca la ca nekkoon. loolu nga xam ne kon andi na ay manque manque yu bari ci ni ñu joxe diine ji ndax gis nga ne yonente bi alei salatu salaam tam tàmbalee ci tawxid ñëw ci ibadaat yi ba ñëw ci axlaaq yi ndax lam ko wax ne na nga wattandiku nag seen alal yi gën a sedd te wattandiku ñaanu ko ñu tooñ loolu wàllu jikko la na maandu kon lépp diine wax na ko jàngale la aqida jàngale la ibadat jàngale la axlaq waaye gis nga fa mu ko tàmbalee ci aqida ba ndax aqida bu leerul leneen loo ca mën a tegit du sotti kon ñii moom mën nañoo ñëw sax njëkk a tàmbalee ci julli ndax mën naa di julli sëmbal waa ji laaj ko loolu def mu ne ko dama doon julli mu ko duñ koy defee mu dal koy wan te fekk ni waxaguñ sax ci aqida waaw kon nekkul woon boo xam ne bu ñu rëdd la bu leer ba loolu ñu ko waxee indi na ay saxaraat muy ay bunt ay manqué manqué yoo xam ne nit ñi ñoo doon jéem a def seen ijtihaad di jéem a mottali manqué manqué yooyu luñ ci amul ci ñi leen doon wax diine ji ñu jéem koo mottalil seen bopp loolu nag ni mu amee ci wet yu bari ca aqida baat ca ibadaat ya noonu la amee itam nag ci njàngoom alquran bi njàngum alquran mi bu ñu ko seetee ci jamono boobu te tam nag ñu bàyyi xel itam melokaan yi may wax bu caagéen dafa yem ca fattara taarixi ya booba rek waaye ca la gënoon a ay baqaayaam ay des itam dana jàll ci beneen fattara bi ci tam dañuy tadaaxul dañuy duggante waaye nag benn bu ne fa mu gën a féete foofu lañ koy askane njàngu alxuraan bi suñ ko seetee min xaysu nawiyati taalim maanaam ci qualité njàngale mi mën nañ koo séddalee ci ñaari madrasa madrasa bi nga xam ne euh, suñu mbokki pulaar yi ñoo ko daan yore muy école yi nekk Fuuta daara yi nekk Fuuta ñoom ci dëkkaane bu ñu dëkk ak waa Mauritanie waa Mauritanie moom nekk ñoo xam ne ñoom xataaw sawtan fi ulumil Qur'an amoon nañ jéego bu yaatu ci euh, njàngum alquran ak ay xam-xamam ñee dëkkaale gu ñu dëkk ak ñoom tax nañu jeexitalu ci ñoom ci ni yitte woo daftu riwaaya maanaam di am riwaaya bu ñuy jànge ñu xam xel na riwaaya bii la wars la wala xaaloon la teg ko ci ay xawaaidam ak it di jéem a rafetal njàng ma waaye nag min a naahiyati nazaria loola ci côté xam ga la jëloon a fés ci côté jëfe ga kon daaray alxuraan yi gënoon a féete fuuta ñoom daanañu yittewoo lool jàng axkaamu euh, euh, riwaayaat yi am ngeen lu mel ne nujoomu tawaali bi nga xam ne day jàng maqraul imaamu naafi ñoom dañ ko daan jàngaale jàng riwaayatu warsu wa qaanuun jàng itam ulum rasmi waaye nag loolu ci naaxiya nazare bi ci jàng gi xam gi moom jàmbaar lañ ci woon waaye ci jëfe gën a tëre wuñ ca woon daanaka ñeneen ñi ca ci wàllu tatbiq bi buñ demee bay appliqué di jàng duñu tare lool lu bari ñeneen ñi ca ndax li ko waral mooy ñoom it woon effort dëgg dëgg dëgg ci jéem a mën a rafetal maxaarijul xorof yi muy ni ñuy génnee araf yi dafa jeexitalu lool ci seen i lahajat xawmiya muy seen làkk yi ñuy làkk wuute gu wuuteeg arabi arab yi def coono dëgg dëgg dëgg dëgg ba man koo tàggaleeg moom sondi wuñ ci woon noonu ni ko boroom ibnul jazari ibnul jazari yi waxe wa laysa baynahu wa bayna tarkihi illa riyaadatu mri'in li fakkihi nee na dara doxul sa diggante nga man ma xaar ji xorofa nga tële ko lu may nga tàggat taw ngaam waaw da ngay tàggat saw ngam illa riyaadatu mri'in li fakkihi waaw boo ko deful rek nee na doo doo ko doo ko jëf walaysa na wa bayna tarkihi illa riyaadatu mri'in li fakkihi rek waaw bu fekkee da nga bàyyi saw ngam ci ni mu miin na mu miinee arab ya rek la koy waxe kon ñoom mi nag defuñu woon effort boobu dëgg dëgg dëgg même buñ xamee maqaar ji xorof yi man laa limal fi ñuy génne fépp mais suñ demee ba di ko génne du génne fa muy génne ngeen xa ñu di ko jàngee ka ah ba loolu day na waaw ba tax na kon daal mi ne naahiyati nazariya moom ñoo tane woon beneen madrasa bi mooy madrasatul wolofiyin muy daara yi nga xam ne wolof yi ñoo ko gënoon a yor ñooñu kaanu aqalla min jawdatil qiraa ñun ñoo gënoon a manqué nag moom ab cër ci baaxalum njàng ndax néew gu ñu yittewoo woon di daxtu riwaaya maanaam même riwaaye sax dañ ko koy tuddee waaye jàng riwaaye dëgg dëgg boo xam ne ñaan la warsu la wala xaaloon la daanaka tur waa fay ne waaye mu tegu caxawaay ñee dëgg dëgg dëgg du am naka noonu itam ñoom itam seen utba muy làmmiñ wi du làmmiñu arab daf doon feeñ lool ak di andi ak këne lool ci tudd yenn arab yi ñoom li ko waraloon gannaaw bu ñu mokkalee alquran ndax dañ ko mokkal na mokkal bu dëgër a dëgër a dëgër koo xam ne bokk na ci ijaabiyaati fatra boobu ñoo gën a dëgërale ak mokkal suñu fatra léegi bii dañ ko daan mokkale moom jéggi na sax dayoo waaye gannaaw bu ñu ko masaa mokkal bu dee ci wolof yi ñoom daawuñu jëm ci jéem a rafetal njàng ma waaye dañuy jëm ci jéem a iqaan luñ koy bindee mbind ma moom lañ gënoon a jox yitte nuñ koy mën a bindee ko xool mën bind kaamil bi yépp ànd ak ratt bu baax dapt baax yépp te duñ ko xool waaye nag loolu ku ko bëgg a def te mënoo génne yenn araf yi ci fiñ ko war a génnee jàng ñu itam ilmu rasm muy xam-xam bi jàngale ni ñuy bindee alquran xam ngeen ne kitaabatul quran dafa wuute lool ak kitaabat imlaiya ci lu baree baree baree bare ne ñu bari rek ba ñi nga xam ne ñoo jàng arab rek tey am na aaya yoo xam ne boo leen ko dicté woon ñu bind ko nañu koy bindee du bokk ak du bokk ak nañ ko war a bindee du bokk ak nañ ko war a bindee waaw wasamaa banaynaaha bi aydin kooku boo ko bindloo woon ab arabisant rek geneen yaa nga goo xam ne kenn du ko jàng te ma nga bu jëkkoon ci njàng mi ci ñàkk tegu ci yoon ko daan yege di ayay dën fekk di jàng yaagooge te ci kaw muy tudde ak maska dug maska jarra la loolu kenn du ko jàng la koy teg la mooy da cay tax maska bu taxee ci kaw arab ko lu muy tax ci mooy kenn mooy la yéegi ci xula onze xam nga ñu dañu jàng xula ah onze te agoogu boo tegee maska rëyaluñu xam sa gi ñaareel bi màkk gi da ciy taq bu ci taqee rek li muy tekki mooy dee sëtu ko jàng ndax mënoo boole naqlu màkk ak xam sa gi jox ko laam gi ba noppi jàngat ko ah ndax laam gi moom yorul woonu fata comme ne nga xolaat laam gi màkkaam moo doon sukkoon ndax feewlu am la xol feewlu am la feewlu amul suñ ko fatxa am na lu tax lu tax ñu fatxa ko màkk gi woon ci xam sa gi lañ ko jox waxal rek li war sin kulla saakinin axirin saxihin bi shaklil hamzi waxtifu waxtifu ay waxtibil hamza muzhila maatalal war kulla saakinin axirin saxiix yépp araf woo xam ne daa mujj yor sukkoon ba noppi wér maas ko bi shaklil hamzi maas nga xam sa nga waxtifu nag sa nga asaf hamza nga def moo tax xula onze kon loolu ñàkk buñ ko ñàkkoon it xam moo tax ñu ko daan jàngee noonu bëgg a mën a taqale xaroof yi itam nag te mënuñ ko taqale ci not ko ci dund te bëgg nañ ko taqale ci mbind waaw bëgg nañ bu ñuy bind moom bind li ñu war a bind te bu ñuy tudd nag moom lépp la ñuy tuddandoo benn yoon xam nga kon muskila dana ñëw loolu moo leen yóbbe woon ci nag ñu def ay ijtihaad comme waxoon naa la ca doaat ya amu ci woon ñu leen takkawin ci loolu ñu def nag dugal seen sa al sarsiya loolu moo taxoon ñu fental arab ay dàkkental ay sant arab ah wu ne ñu wutal ko sant koy ràññale ak wàcca def waaw bu ñëwee ci zaay ñu ne raa siin ga xam ne ni ngay jàngee siin nga koy jàngee raa siin bu ñëwee ci yaa yaa itam xam nga daa nañu am problème ci taqale yaagu ne ci awalul kalima ak yaagu ne ci axirul kalima ba yaa gi ne ci ak awul kalima yaa rek la waaye que ne ci awul kalima ñu ne yaa yanara yaa gi mel nekk raa waaw yanara yaa gi mel nekk raa nga xam ne day tàllalu tànkam loolu lañ ko doon jàngi pour nga mën xam naka doon bu ñu ñëwee ci xaar ñu ne xaar lonk xaar gi nga xam ne daa lonk waaw bu ñëwee ci ayin ayin gi nga xam ne daa ne ci awalul kalima ak ayin gën a ca wasatul kalima ayin gën a ci awalul kalima ñu ne ayin ngimiñ till waaw ayin gi mel na gimiñu till nga xam day ŋaat def nii ñu ne ayin gimiñ till waaw looloo te andi ñu bari ci ñoon jàng nañ ay ngimiñ till te du xam lu muy tekki waaw bu ñëwee ci ayin gën a ci digg baax ba ñu ne ayin dëgël mën a dëgëlu fas dëgël bi ngay teg sa tànk booy yéeg ci fas ñu ne ayin gi niroog dëgëlu fas mooy ay ndigal biñ danoo ay ndigal ay yéen dëgalu fas dëgal bi mu ngo bu ñu ñëwee ci baa baa bi ne ci awalul kalima ak baa ba mujj baa ne joor bi ne ci joor gi nga ne ci àll bi rek la nekk waaw waaw <laughs> dara doxul dara doxul ci digganteem ak miim gu mujj ma ñu ne miimara miim ngi mel ne raa gi nga xam day wàcc miimara ñu ñu ban jàng nañ baa si miimara haa ji bu dee haa gi nga xam ne mujjul moom la daan wax haa al haa kabir mais dañoo mujjul sax ñu naan al kubéer waaw mais haa kabir lañ ci jublu haa ba ca def ñu ne haa saqir moom nga dégg la al saqir alif laam laam hoo al saqir waaw ñun ñëpp jàng nañu baasin miimara alif laam laam hoo al saqir alif laam raa xaa lonk miim aj nuunara waaw nuunara noon gu mujj ga waaw gis nga kon yooyu misaal la ci kon nu ñu fentale woon xaraf yi ay dàkkental ngir bëgg koo mën a bind am naa ci suuf ga moom jaaxalu leen sonnuñ ca waaye bëgg nañ koo bind te duñ ko yàq looloo tax itam ci geneen wàcc loolu mooy min xaysul xuruf léegi nag mu def min xaysu qawaidi rasmi alquran kooku defe nañ ci moom it beneen coono parce que rasmul Qur'an mën ngaa xam xaraf ba noppi waaye comme dafa am ay xawaid xaasa ay règle spéciale te jànguñu ko loolu moo waraloon ci tariqul istiqra mooy liir seetlu ak di topp ñu fexe ba génne ci ay règle yoo xam ne dinañ ci mën a xàmmee mutasabihaat yi muy aaya yi nga xam ne dañoo nuroo ah yi nga xam ne dañoo giru niroo lu ne lu mel ne wali tatma inna xam nga soo demee ci suratu ali imran wali tatma inna qulubukum bi soo demee ci suratu anfal wali tatma inna bihi qulubukum ñu ne naxu gilaay nabi lan fal naxu wali tatma inna qulubukum naga xaaf naxu gilaay nabi lan waaw xam kon foofu tasaabuh boobu noonu lañ ko lijjanti amoon nañu lool njàmbaar naka noonu loolu lañu wutoon ay boole yoo xam ne dañ cee tënk ni ñuy bindee alquran baat bu nekk fa mu nekk ak la ko tàqaleeg morom ma ba mën a bind alquran te duñ ci juum wala buñ ca juumeet njuum te lu ñuy lim la yoo xam ne ñay topp la ñu bind dañ ko mën a defar boo gisee nag ñu yittewoo woon mbind ci jamono boobu noonu te yittewoo wuñ ne njàng mi jamaa booba li doon rayu said li nga xam ne moo doon gis-gisu nit ñi mooy taalib bi duñ ko jàppee ku man alquran am daraja yi war a mën a ubbi daara lu dul gannaaw boo xamee ne dafa mën a bind gannaaw bu mokkalee dafa mën a bind alquran te du ko xool moo xam dana ko bind wala du ko mën a bind waaye nag na am ahliya bi na ko man ndax booba yim bind bi yombul ndax kayit ak yu demee noonu yombewul woon noonu ku am da nga bind waaye ku mënta bind it da nga beqee ba kenn mënees laa daaneel bañ xam ne yow mii moom boo bindul kaamil it mën nga ko bind te doo doo doo doo do doo ko kii ndax yoon wala mujj bind kenn daaneelu la wala ya ya daanu néew na lool loolu ci lañ daan nangoo leen nit ki ne am kàng la ci ngay doog a ci darajay kàng mokkal gi rek du tax nga nekk mu kal ku mokkal ba noppi doo ko takki bagaasam laxas nag dem feneen bu gisee dëkk boo masaa dem daara yu mag yi dangay gis ne penc ma waxambaane yooyu ndax ñooñu dana fekk ñu doon di waxambaane parce que booba njàng mi gaawul bala ngaa mokkal rek at yu bari nga ciy def ba daanaka soo mokkalee dana fekk nga mat waxambaane daanaka sax commencé am ay benn benn donga yi ñu lay jox nga ànd ak ñoom da laxas fekki sëriñ bu mag su ko defee takk seen i néeg ca penc ma yor seen i donga foofu di bind di ko jox mu di leen toppal bu àllarbaa ñu demal ko tool àllarba nekkaale ay nawetaan di bayaale loolu nit ki daal ci xaw a jeexal ak ndawam ak waxambaaneem ci la daan jeex ndax loolu lañ jàppee woon raaye bi moom jàpp nañ ne soo demee ba mën loolu nag léegi nag borom kànga waaw egg nga nag fa ko taxoon a jóg te fekk na loolu nga doon def wasila la rek am moyen la woon boo xam ne def ci dimbali ko pour mën a dégg alquran ak mën koo jëfee ngir mën a am li tax alquran wàcc ndax bi li wax kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab surtout ça aaya juróom ñaar kon hadaf boobu muy jublu waaye boobu nga xam ne moo taxoon alquran jóg ci jamono boobu lu li may wax lépp nag lu jiitu zaamat turuk sofiye yi la booba sëñ daara yooyu rek ñoo fi ak am na ay kilifa yu fi ne waaye boobu ni ma ko waxee markasiye bi amut muy baat bi nga xam ne dafa daje woo ci kenn waaw euh, bu ñu seetee nag ñu te néew ñenn nag ci ñoo xam ne yàlla daana leen baaxe buñ masaa jàng ba nekkum kaan daawuñu ca yam waaye daanañu continuer seenu njàng ci daara yi xam-xam yi amoon lu mel ne Pire lu mel ne Kokki lu mel ne Jaamal yooyu boobu ay ak ci jàng xam-xam la yu mag ak yeneen yoo xam ne am na ci kaar yooyu bu jàngkati alxuraan yi ñu fa daan jàll jàng fa xam ko waaye ñu ca dund ña jàll nag lu mooy kaang rek ñibbi bari seen daara ñooñu ak itam ñenn ñi daan dem Mauritanie am na kii ñu daan dem Mauritanie continuer foofu jàng xam-xam ñooñu nag ñoo daan idaafa ci laxabu kaan laxabu fóore ñu daan kaan fóore la waaw ki jàng alxuraan ji ba itxaane ko noonu dem jàngi xam kooku nag mooy kaan fóore xam nga léegi daal xaram mooy doctorat xam waaye ñu jëlul ñooña nag ñooña moom kàng rek la doon fañ yem ci alxuraan daal mooy lañ ca xam mooy bindi téere téere yi ñaanal ak di ko jàngal ñu faatu ak di damoo ak di bakkoo xawaid yooyu nga xam ne régal yooyu nga xam ne mokkal nañ ko ci nit ñuy bindi alxuraan yooyu xam ngeen ne lu gudde gudde gudd la daan doon dañ ko daan mokkal nanga ma nga sar sàggam nanga ma sar sàggam dañ daan bàkkoo ci nañ ko mokkale di ca damu waaye tam di ca xasaale ak di ca limaale njuum tey seen moroom yi nga xam ne baax sànga mas na leen a daam ko baat masat daam rek gars dañ koy dugalaale ci biir woy bi waaw diw sàngam ci dëkk sàngam baat sàngam ma ko daam comme ni mbëri lamb yoo xam naan diw ma ko maa ko daam noonu lañ daan waxe waaw dañ la kaar mi bu la ma saa toppal ba dañ daan yor xalima bu dijja dijja dijj koo xam ne buñ la toppalee ba yegg ci baat boo xam ne danga koy sëpp ci daal di dañ koy ci àll wa ji rëdd waaw ne la yow baat tàngam daan na la deel bind wala nga dëkkee na fa waaw boo fi jógee yow di deel deel bind gestu wala nga dëkkee na fa waaw foofu la mbir may yem nga jàngi wax kon kooku foofu rek la daan toll ci loolu sax dañ ci daan egg ba folkloriser ko ba léegi nit ñi dañu leen deen wër ñoom kàng yooyu ñuy damu ci loolu ñu mokkal ci ni ñuy bindee alquran di ci xasaare seen morom yi nga xam ne itam am na ay baat yu leen daaneel waaye ci wàllu pas-pas nag ak ci wàllu jaamu yàlla ak ci wàllu jikko melokaan wi alquran war a def ci nit koo ñoo ña jaarul woon ca daara ya wala ña ca jaar te sori wuñ ca ñoo ca yemoon képp wala sax léeg-léeg ñooñu tànne leen ca ci ay jikko ci li gën a bari na moo tax sëñ Moussa mi ngi melal fatra boobu naan ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu booba ñooñu doomi soxna lañ kaanu xam ngeen ne ku kaanu mooy ku xamatul lu ko tëdd <laughs> waaw di dagu teef yi wóor yi faf nasraan waaw kenn amatul xasdu li wajhillaahi kaa nga fóore faf di jaanillaahi mu ne kenn amatul xasdu li wajhillaahi kenn defatul dara ngir yàlla mu ne kaan yeeg fóore yi far tooñkati yàlla lañ far jaanillah tooñkati yàlla lañ wax fatra boobu moom la doon melal eh, jamono boobu kon daal misaas yi fatra boobu ay ngëneelam mooy doon nañ jàng alquran bu baax a baax a baax di ko mokkal bokkoon na ci ay madaaya ni tamit nag loolu moo daan téye nit ñi ci ñu dem ci ceddo gi parce que booba loolu la muy ñàkk ñàkk sama bootul ku ca nekkul ci ceddo gi ngay dem waaw ceddo gi nga ko ci kon xis na la woon benn tata la woon joo xam ne itam doonte eggul fa mu war a egg mais nekkoon na baaraam ci téye nit ñi ci diine rek alal aqal doonte diine jël xëy na ne melul na mu war a mel waaye dana leen ci téye ñu def ci ba duñ nekk ay caddo wala leneen mokkal ga itam nag daana dëgër lool waaye nag ci wàllu jikko yaag wàllu pas-pas ndax lu ci gën a bari sëriñ daara yooyu ñoo daan ñaanal buur yi buur yi nga xam ne ci ay tooñkat lañu woon ñoom ñëpp sax daanaka di ëpp doole nit ñi di jël seeni di ko te ci lañ leen daan weexal ñu ca bari ci sëñ ci la yooyu ci lañ daan ci lañ daan dugg <laughs> euh, kon loolu mooy fatra bu njëkk bi amma fatra saaniya bi muy dooru taxqiq alquran alkarim fi zilli haymanati zahamati turuqiya ala masirati daawa alislamiya fi Sénégal jamono bi nga xamee ne nag léegi turuq sofiya yi nag tarixa yi commencé nañoo jóg nag di am doole te loolu daanaka mooy tarixa muridiya bi ndax tarixa yi ñu ngi fi woon waaye xam nga tarixa tijaan yi yàgg na fi ak tarixa yi waaye boobu amul markase booba ku ma saa jàng ci sëriñ ba mu jox la werd wala dara da ngay dem si yoon benn daanaka mën nga amatee moom benn alaaka da ngay dem sa yoon yow itam beri feneen nekk fa bi tarixat murid yi bi tàmbalee nag bi nga xam ne moom dafa am markase moom nga xam ne am na benn njiit boo xam ne lépp mexwar lépp ci moom la ci moom la yeewu daanaka loolu yi moo influencé yeneen tarixa yi ñoom ñu commencé wut lu mel noonu waaw ci la lu bari ci lañ ci lañ ta asut ci lañ ta asut ci barkasiye boobu ak baax yoo xam ne dañuy continuer topp cheikh ba doonte jógee nañ daaraam doonte sonné ak fu ñu mën a dem teewul seen wala ba tey mi ngi ci moom lu baree baree bari loolu ñu ngi ko copier ci eh, tarixatul muridiyya kon daara alquran ci époque boobu am na moom tatawur mooy am na jëm kanam min haysu naw ci wàllu qualité njàng mi gën naa tane ndax comme turux suufi yooyu moom dañu doon yar nit ñi kaar nañu libéré woon amuñu dara lu amuñu xam-xamu diine amuñu itam njiitul diine lu leen tënk di leen yamale ci wàllu jikko ba bu leen neexee fecc ak lu leen neex def bi tarika suufi yooyu ñoom ñëwee moom yaraat nañu nag ñuy jàng alquran ba yu bari yu ñu xañoon ñemeetuñ ko léegi yu bari yooyu ñu idaafa woon ci alquran luñ ci daan limaale tudde saar yi ay tur yeneen ak len lu ne ñu dugal ko ci biir alquran ñu tere ko loolu turux yi suyoox yi ñoo ko dindi ñoo ko dindi alquran kenn waru ci idaafale dem parce que saar yi bari dañ leen ay ali imran ñu naa ko ay gilaaya ay kaas ñu naa ko njenge ay yu demee noonu fu ne ñu wutal koo tur yooyu biñ ñëwee ñoom dañ koo dindi dañ ko dindi temps bi yaa itam ah, sëriñu jàngalekati alxuraan yi ba nga xam ne léegi gën nañoo am worma ci nit ñi nit ñi gën leen a respecté itam nag gën leen a ndax léegi ñu yam lañu ñoo xam ne dara ciy caaxaan ah sori nañ ko ndax kilifa yooyu itam fonkoon nañu lool jàngalekati alxuraan yi ñu leen teral lool di leen joxe alal daanañu leen yëkkati itam eh, seen daraja eh, jox leen cër bu baax a baax a baax loolu daa ci gën a jagleel ci tudd ni ma ko waxee ak tariqatul muridiyya ki nga xam ne moo ko sos di Cheikh Ahmadul Khadim doon na soññ nit ñi lool ci mokkal alquran ak di bind ay kaamil te yëmul woon rek tax ci ay at baam waaye ci ñëpp la woon ndax ku ko masaa nit ab kaamil lam lay terale ak lam lay jox ci alal daana tax ñu baree baree baree bari bëgg a bindu kaamil ba mën ku ko yët ba mu jox leen dara doonte sax feneen lañ jógee nekkuñu sax ci ay apparence ànd ak nag daaray alxuraan yi ci jamono boobu muy ci kilifa kilifteefu tarixa yi am nag jëm kanam lool ci yëkkati ko ndiwa njàng mi tuuti xaw naa baaxal itam situation dundiinu jàngalekat yi xaw naa gën a tane waaye teewul nag ba tey gàttalilu ci def coono ci rafetal njàng mi moom ba tey jógu fa la ànd ak dem ci daara yi nga xam ne tarixa yooyu la toppi teewul gàttalilu ci rafetal njàngum alxuraan mi ba tey jógu fi bokk na ci akbaru dalil ci loolu am ngeen ne Ahmadul Xadim Sëriñ Tuubaa ci nekkam gu mujj ci njaareem xam ngeen ne leen yoroon ci ay kaang moom ak ñu ko wër ci ñu mokkal alquran moom kenn xamul nu mu toll waaye toujours ku ko daan naati laal Mauritanie la ko daan jëlee ci weeru koor da daan andi am naar boo xam ne nit ñi sax dañ ko daan defee ne jawwaat la tudd mais tajwid bi muy tajwid wañ naan suñu moom ku mën a ñëw rek ñu jawaat boo demee ñaan ne ne la jawaat jawaat la ñëwoon waaw te jawaat la yu jawwit <laughs> yu jawwitul quran xam ngeen ne loolu bu ko waxul it isaaraa ngi ci ne kon ñii ko wër kat seen njàng mi moom gis na ne war da ko gën a rafetal ndax bu fekkoon ne kuy jàng alxuraan lim yor ci kaang yu ko wër moom ba sax am na riwaay bu may xam ne wér wér na mbirul ñu ne sax bind nañ ko kaamil ci benn bi waaw nañu koy wax nag kaang yu bari yu mu dajale ci benn néeg kenn ku ne bindu ifit saxee xam waaw kon bu ko man na ko askan moom kon mbokk mi ne ne wér na xam nga kon ci kaang ñu mokkal alxuraan kooku nag booy booy jëggaar am naa fi la kat ah kon loolu italaamu ci kon moo tax ñiy gis léegi ñiy jéem a rafetal taj bi tag yooyu am ñu leen di critiquer naan dañuy naara la dañ koy bëgg andi lu bees ak ñooñu kiy naaral sëñ tubaab bi jëli woonum naar nag moom yow da ngay naaral moom mu far andim naaral ah yow ab wolof ngay jéem a naaralal moom mu andi naar bu weex tàll <laughs> ok pour naaral gi kay yàgg na fi ko ah. ko ko kay inna ja'alna al-qur'ana arabiyyan du warabiyyan arabiyyan kon loolu ab isaara ngi ci woon ne kat gisoon na ne xëy na sóoralu leen jëf ndax xam na ne xëy na doon na jafe ci ñoom ñu mën koo rafetal moo doyloo rek la jàppandi nañu mokkale ak nañu mën a jàngalee ak nañu mën a bindee sutu mbind mu rafet nag moom bind moom ñoo ko dàq sax nag ñoo ñu leen dàq tajwid bind mu rafet moo xam ne ak fu ñu mën a jaar rek jaar nañoo jaar nag ba li jënti ba mu wér waaw waaye li résultat mooy wér gi rek moom ndax xawaay du ci arab rek mais moom tënk yi ñu doon def ci wolof sorewuñu ndax boo demee ci téere ras mu bi ñu doon jàng ci Mauritanie da nga naan lin nuuni li oxrof tax waraa way muddalam tubda bi tay fil jamci waxti fan xulam yuxmat xawaari maali oon min qaati'in faaina jabbaarin bi tawlin daaxirin waaw xam li nuuril uxra tax waraa way mudda lam tubda bi tey li bëgg a wax rek mooy jamul musakkarisan yi waaye gis nga fi mu ko jaar comme ki muy jàngal jéggul naxwu mu ne li nuuril uxra nuun gu mujj iftax nga fataa ko waraa way tem ñëw ci gannaaw waaw ak yaa lam tubda bi tey te tàmbalewul ci faa tàmbalewul ci yaa <laughs> moom kooku mooy jamul musakkarisan yi waaw comme muslim moo ne baatu muslim moo ne rek la wala saali moo ne la la bëgg a wax waaw saali moo ne la la bëgg a wax ne alif ka day dàgg kenn du ko aj a mu ne la leen noonil uxra noonu bu mujjee ifta xepatal waraa way te waaw ak yaa jiitu ko mu saalimiina wala saalimoona xam nga jafe mu sakkal saalim waaw lay daaneele ak noonu wala waaw yaa ak noonu mu ne lam tubda bi tey ndax bu tàmbalee ci taa wala yaa ab aarul xam sa lay doon mu ne lam tubda bi tey kenn tàmbalee ko ci taa kenn tàmbalee ko ci yaa xam nga yooyu daf day kàll ci arab rek moom wax ko ci wala soriwul waaw moo tax kon ñooy seen résultat bu dul woon yaa ngi say yokk nag ci ay daafura nag ay bu ñu yemoon nag ci xawaa yi rek moom doon na ko am ah, bokk na ci li ñuy dugal ci ay mataaya fatra boobu ànd ak nag zuróof muy tolluwaay yi daara yi doon jànge nekk ci woon na lool ci époque bii ak ba ko jiitu yépp zuróof xaas ya doon doon waaye nag xam ne zuróof yooyu sax muy tolluwaay yu metti yooyu sax li gën a bari moo daan sabab taalib bi effet maanaam ndongal yi du mën a eggale am njàngam léeg-léeg ndax ndax tolluwaayu nett yi nga xam ne moom la ñuy jàngee ci daara ji wala boog bu mokkalee mokkal ga dana yeex lool ndax la ca daan ànd ci ab liggéey liggéey boo xam ne day jël lu bari ci seeni waxtu xadamaat yoo xam ne yëmul ci ay tool rek waaye xadamaat yi kër gi sàkket yaag bojj mbaa sembu baax lépp loo xam ne lu ñuy soxla ci kër gi la donge yooyu dañu ci daan lekk taxan maag waaye ànd ak loolu lépp nag teewul am na ay ngëneel ndax ndaw nga ne su ko saa jógee ci daara ju mel noonu duutu am jënn rëy rëylu ci def benn liggéey ak liggéey boobu lu ko nit ñi gise gise lu suufe suufe ndonga loolu moom du rëylu pour def ko am ci kattanu mën a muñ ak mën a supporter ak mënoo nangu ak doyadal guñ koy doyadal ak suufeel mu mën koo supporter loo xam ne keneen daw ko mën a am ndongo yi daan génne foofu seenu muñ ci wàllu coono ak seenu muñ ci wàllu ihaada nafsiya muy di leen doyadal ak di leen jéem a xeex loolu lépp mën nañ ko supporter daanañ ci mel noo xam ne kenn ku jaarul ci ñoom daawoo ko mën a am daanañ ci jëlee itam ay xarala yu bari non nga daana xam ngeen ne daana xarala lool ci yu bari takkum néegat rabb lal bi muy tëddët yooyu yëpp da ko daan andil ay xaal daanaka daawul daawul ñu tële lu bari yéegat yu nekk lañ daan mën daana ko andil ak nooy ci mën a jëflanteeg nit ñi ku mu bëgg ci yow dara dana mën a nooy mën a moraliser ba mën a jot ci lool du gaaw a mer waaw loolu lépp ay sifaat la yoo xam ne daanañ ko jële ci ci yooyu ànd ak turóof yu métti yooyu ñu doon ba tax mën a am sax loolu kon mën a nekk sir secret ci bu ñu seetee koom-koomu senegal fi mu ne fi mu gën a sukkandiku fi mu ne mooy ci donga yooyu génn ci daara yooyu maanaam ñooy al amadul faqari lil iqtisadi sénégal yi waaw digg gannaaw koom-koomu Sénégal mooy dongay daara yooyu ñuy tuddee bawal bawal ak xabatul wu leen mën a tuddee waaw waaw rek bawal yooyu nekk Ndakaaru dajale butéel ak dajale banta dajale lu ne mu dajale ba yàgg mu ubbintee romb la di dawalu Mercedes di dem waaw yow ngay gàbb say saag di dem ak a ñëw waaw loo ci baax da ko tàmbalee ca suuf ba ñu dara waaw te du fa jaar ñemewu ko sax ah xam nga booy liggéey ba ñu bu dagan te itam la nga amee lu néew néew doo ko yàq bu yàggee rek yàlla defal la teraanga chéré bi yépp loolu la loolu nag masaaya yooyu ñu ngi ko daan ci ci daade waaye nag teewul ci fatra boobu itam nag am na tuuti moom it ay ay ay ay ay ay rëq-rëq yu mu xaw a andi ci daara ji ndax cër yi nga xam ne daa dañ ko amee ci parce que bu njëkkoon cër mënoo ko am ci diina lu may nga nekk doomi soxna nga jàng alquran waaw bu njëkkoon loolu rek ci nga mën a andi cëru diina moom ci lañ lay maye soxna ci lañ lay nawloo ci lañ lay tege am naa bi trop yi ñëwee rek ñoom andi nañ nga mën a am cër ci diine te doo nekkum kaat doo jàng alquran moo ñu seexal la wala ñu mu xaddamam ba tax na loolu wàññi na am na lu mu wàññi ci iqbaal boobu nga xam ne ak coono bi nit ñi daan daj pour nekkum kaang wàññi na ci lu bari parce que mën ngaa lijjanti boo nekkul kaang mën ngaa lijjanti ba am place waaw boobu du yaay gën a for kaang loolu moom ci fii benn turuqi suufiye dëgg la tatwiir nañ amélioré nañ lu bari ci njàng mi dimbali sëriñ si gën leen fonkat waaye itam nag andi nañu beneen doxalin boo xam ne tax itam ñu bari duutuñu euh, sonnati noonu ci ci ci ci njàng bi noonu buñ ca demee daal buñ ca yeggati fenn bi ndax xam nañ ne mën nañoo am cër te gannaaw li ca bëree bëri wut cër la woon rek cër bi mën nga ko am fu gën a noppale euh, tax na am na lu mu ca wàññi tuuti daal mm. kaa ngi daal ca patar bële la gënoon a bare mm. ca la doon gën a dëgëre itam mm. amaa nag ci fatra bu mujj bi nag dooru tahfiis alquran alkarim fi willi alsahwati alislamiati almuasira maanaam daara alquran ya ci saxwa bi suñu mbokk docteur am na tuddee ak xefeet xefeet la koy firi moom saxwal islamiyya maanaam nit ñi loolu dañ doon leew mais commencé nañ nag xefeet nag di yeewu waaw parce que lu bare bëree bëri ci diine léegi nit ñu di ko laajte ak di ko gëstu amul woon waaw comme njàngum alxuraan dafa am wàccuwaay bu rëy ci l'islam moo tax toujours day suubu day jël couleur étape bi daawa bi toll yastabiqu daiman bi simqati almarahil allati tamurru biha ad daawatu al islamia taalim al qurani yastabiqu bi simqati daawa fu daawa bi toll rek couleur ba mu jël taalim al qurani bi di koy jël ànd ak moom gis ngeen ba mu jëlee turux soviet yore ko ko jëlaale i seen couleur bu baax a baax a baax seen tarbiya ba ñuy tarbiya ci seen daaray tarbiya mujj na sayxu borom daara ji noonu lay tarbiya ci daara waaw mujj na loolu lay tarbiya ci daara moom it ndax booba Euh, loolu moo saytan moo tax kon Sénégal ni ñu ko xamee mu ngi dund ak euh, jëm kanam bu baax ak yaw ci jamono yii ci wàllu lislaam goo xam ne ay jeexitam da ko daj fu ne jeexiti taqwa bi fépp nga koy gis ba tax na feeñ na ci même jàngum alxuraan ni taqwa bi da cee feeñ loolu moo waral ay daara commencé am yu xew yu wuuteeg ya daan am yoo xam ne ay génération ñoo ko sos yoo xam ne taassur nañ min qaribin aw min baid bis axwal islamia maanaam jeexitalu nañu ci yeewu teg l'islam gi am ñi sos daara yu mujj yi jeexitalu nañ ci waxuma ne ca la ñu ne wala seen lépp loola la waaye même buñ defee ca fatra bële itam ca turuq soviet yi téewul jeexitalu nañu ci saxwa boobu am na influence bu mu def ci ñoom ngir seenum njàng xëy na wala seenum jaxatoo ak ña jàng yooyu mujj sosu nag am na ay maxaasin kasira am na ay yu baax yu bare baree bari waaye nag laa taxlu min maaqis moom it am na nag ay gendiku yuñ ci war a gendiko yuñ ci war a e, bàyyiwaat xel bu baax bokk na ci yi mu rafet la moom daara yii mujj am te mën nañoo wax ne ay irhasatam muy ay signalam mu nga tàmbalee ca euh, bokk na ca ca ndar daaray sëñ Malick Moxsin Diop sëñ Moxsin Diop ñooñu ñu teel jëm ci di jéem a rafetal njàng mi lañu jéem a tajwiidul Qur'an di ko jéem a rafetal jaar ci ci waa Fass Touré waaw ñooñu ci war milieu wolof bi laay wax toujours kenn jiituwu leen ci fànn gu mel noonu ba ci jamono yu mujj yi nag daara yi gën a law donte daara yi eh, jiwancan daara mooy sëñ Maxsin jooju doon nañ góorgóorlu lool ci wàllu set bi waaye ci nekkeenu xale yi nag daanaka moom amul woon changement ndax du woon ay daara yoo xam ne comme ni ñu koy organiser léegi way jur yi am lu ñuy joxe ñuy yore xale yi di leen dundal di leen ci teew teew déedéet dañ faa nekkoon rek léeg-léeg ña war a yalwaan yalwaan ña amul lu ñu dundee seen way jur dimbali leen wala keneen dimbali leen melokaanu xale yi daal soppikuwul woon lu bari waaye njàng ma nag moom doon lañ ko jéem rafetal seen képp kattan donte lu ca bari itam nag tax séggugul woon ci ay xawaay ay xanaa gën a a neexal wut ab daaj wala xaw di gën a neexal seen baax ak lañ jot xam ci ahkaamu tëdd ba mu jàll ci ci Fass Touré sëñ Adi xam ngeen ne ci buñ defee daal ci ab si Abdoulaye si la tàmbale déedéet ci tàmbale wala lu ci jamono yu mujj daan def. Euh, at mu ne daanaka mu dem Makka dem Madina lu bari fa la daan woore foofu la gën a taassu rek ci gis nu ñuy jàngee foofu alquran moo tax bu ñëwee mu gën a dugal tatwir boobu ci daaraam xanaa gannaaw bu la ko doom gën a organiser waat dugal ci xay na mu nekk daakali ñuy fay di kii yooyu ci ci jiitu la ba ne mu egsee nag ci yu mujj yi ala kulin bokk na ci maxaasini daara yooyu gën a rafetal niveau njàng bi ci baaxal njàngeenu alquran mi ci wàllu tajwid gën naa jëm kanam ñaareel ba gën a condition wu nekkiinu xale yi ci wàllu dund ak wàllu wér-gu-yaram ci daara yu mujj yi loolu gën na cee feeñ bokk ci ay ijaabiyaatam xale yi eh, di man di lekk eh, lekk xam ne gu baax lay doon ci wàllu wér-gu-yaram lekk sax yëpp a baax waaye nag nga gën a dëppoo wér-gu-yaram xam ne rek kooka daa dem ba soxlaatu ko jox la ko ñetteel ba itam bokk na ci ay ngëneelam gàtt gu njàng mi maanaam diir bi xale bi di def ca daara ja nu muy ngir mokkal alxuraan gën naa gàtt ngeen ne daa gis ne fukki at wala fukki at ak juróom wala ñaar fukki at sax boo tuuti da mokkal léegi dañu naan wàcc na juróom-ñaari yoon. alxuraan juróom-ñaari yoon ñu koy noyyi fekk na wàcc juróom-ñaari yoon ak wàcc yoon moom daanaka soriwul li am solo rek mooy mokkal gi waaye ñoom dañ daan ni moom ñaata yoon nga wàcc dañ daan wax ñetteel ba bokk na ca daara yooyu tax na njàngum alxuraan law ba egg ci mbooleem xaaji société bi xam ngeen ne njàngum alxuraan yi dafa am fa mu rek am na ñoo xam ne daawuñu ci bokk am na ñi nga xam ne daawuñu ci bokk rawatina ñi nga xam ne xëy na dañoo féete ci njàngum tubaab mi ca yaw di ca yar seeni doom ñooñu maanaam sax ba ñu ñu woon alquran ba ñu seen doom jàng mais condition yañ koy jànge lañu bëggul woon seen doom di ca nekk ba tax na daana leen jaral sax kon seen doom bañ a jàng alquran bil marok waaye bi daara alquran yi amee tax na même ñooñu xemme maat di yóbbu seen doom ci daara yooyu xam ne du fa tumuranke benn tumuranke bu metti bi juróomeel ba bokk na ci itam daara yi may na occasion wu jigéen ñi ñu mën a jàng alxuraan xam ngeen ne daara yu jëkk yële jigéen ju nekkum kaam néewoon na ci lool waaw ndax duóob yañ ko doon jàngee muy condition yañ ko doon jàngee loolu jigéen mënu ko woon a supporté condition yi ñu daan nekkee ci daara kooku jigéen mënu ko woon a supporté ba tax na jigéen ñi daanaka dañ leen cee xas ko woon bokkuñu ci woon daara alxuraan yii ñëwaat nag nga xam ne xale bi day dëkk ñu koy coggal di ko surveiller muy sangu di tax na jigéen ñi man ke bokk loolu bokk na ci ay ay njariñam bokk na ci ay njariñam itam dox na digganteeg lu bari ci ñi jàngoon alxuraan xam nga ne lu bari ci ñi daan jàng alxuraan itam daanañu fa bàyyi daanañu génne majaalu taalim bàyyi fa njàng ma dem duggi ci commerce wala leneen ngir bëgg a mën a dund waaw ngir bëgg am forosu xayaa ak dal waaye bi daara alxuraan yi amee ah jël ca jàngalekat ya di leen jox loo xam ne danañ ca mën a dund danañ ca mën a am teraanga tax nañu baree bari def ci madaaru taalim maanaam daara yi dimbale na jàngkat yu bari ñu mokkaloon alxuraan yoo xam ne bu dul woon yooyu ba tey sori nañu lool am njàng comme njàngale ña nga ca leneen te mën a jaadam sax ba fàtte lañ jàngoon daara bokk na ci ay njariñam mu gar téye nit ñi ñi jàngoon jox leen ay wasaïd ay place yoo xam ne lañu doon dabu ca commerce ba wala ñu koy dabu ca tukki ba mën nañ koo am teraanga ju mel noonu ba noppi def ci biir jàngat jàngale loolu itam lu am solo la li mu naroon a def rek mooy daara alxuraan yi ku mu génn ba defal la rek nga dem ci beneen ma jàll dem ci leneen bu yàggee kon boobu mu mujj jeex bokk na ay njëriñ mi ñam itam mën a yar gone yi nga xam nga gone yi itam buñu leen daan bàyyi nga xam ne xale bi day am fatra yu bari yoo xam ne ki koy jàngal du xam fu ne nekk génn na yalwaan yi suba ji mu yalwaani bëccëg bi mu yalwaani ngoon gi mu yalwaani rawatina ñu nekk ci mudul yi ci dëkk yu mag yi di jaxasoog ñeneen xam ngeen ne yooyu xale yar leen dana jafe danañ copier yeneen jikko yu baree baree bare bari indiwaale ba bari waane xale yu baree baree bari ci daara yi ni ma waxoon sànq daara yi dañ ci daan jële ak njub ak mën a muñ ak nangoo liggéey ak waaye mujjoon na yenn daara yi ñu ciy jële moom ak ndëngteeg bootul sàcc ak luubal yu bari ñu di ko ci jële sax ndax ñàkk bu leen keneen di jàngal mën a tee jubbanti ndax li muy ëmpale ci ñoom moo ëpp waaye bi nga xamee ne xale yi dañuy dëkk ci benn barab ñu mën leen a jamono bu nekk ñu ngi taxtal muraqaba maanaam toujours ñu ngi ci contrôle ki leen yor loolu lu mën a nekk ci ñoom ci ay nëgite dana ko mën a jubbanti juróom-ñetteel ba bokk na ci rafet rafet yi daara yooyu itam rafetal na lu bari ci dég-dégu ni ñu doon yàqe daara ni ñu doon yàqee turu daara fu ñu ne daara rek wala ndongal daara ñu yàqu turam wala kuy tilim la ku xayadi la ku gàttum xel la ba noppi attaques yi ñu doon def ci daara di sukkandikoo tumuranke yooyu ñu nekk daara alquran yu mujj yi fanq na ci lu bari fanq na ci lu bare baree baree baree baree kon loolu bokk na ci ay ay ijaabiyatam amaa nag li nga xam ne ay maaqisam la nag yi nga xam ne nag yu ñu koy gendikul la bi ci jëkk mooy xañ gu ñu xañ lu baree baree bari ci société bi ci ñu mën a jàng ci daara yu mel noonu ndax léeg-léeg tële boo xam ne seeni way juddu nañ ko tële ci dépense ya njàng ma di laaj tax na ñu xañ ñu bari xale yoo xam ne ay abaaxira lañ naroon a doon ku leen jàngaloon ci daara yu mel noonu danañu ràññ ko lool te dara lu leen zanbu bi leen ci tey jàngaloo way seen way du dafa ñàkk rek xam nga ne loolu loolu day waral waxuma ne nag jàngalekat ba moo yenu responsabilité keneen waaye loolu daal moom ku mënoon a jàng ngi nii yeyoo woon daara ji lool léeg-léeg sax ñu dugal ko ca ba pare waaye te nag ay way juróom sax bootul ñu génn ko ca far waaw mu leer ko ne jàngalekat ba koy génne gis na ne kii ki gën a ràññi ko ci daara ji la bokk waaye mu génne ko ngir ne daal xëy na liñ ko war a defal defaluñ ko dama loolu du doy waar ñaareel ba itam gaaw boo xam ne xale yi danañ ko gaaw a jóge ci daa yooyu gannaaw bu ñu mokkalee benn diisug dépense ya ci seeni way jur ba suñu déggee ne mokkal nañu rek duñ leen fa bëggatee bàyyi ndax sonn nañ ci dépense yi booba tey xëy am nañ yeneen doom itam yoo xam ne bëgg nañ ñoo ne ñu jaar fi mu jaar te mënuñoo boole garde fi seen mag jooju mokkal ba pare di fay la ñu doon fay indi ay rakam su ko defee kon moom mi mokkal na fi jóge ñu indi rakam wala boo ngir fas gi ñeen ñu baree bare fas ne njàngum alxuraan mi ngi yem ci boo mokkale loolu itam gis-gis bu tasaaroo la boo xam ne bu ñu ne xale bi mokkal na rek alxuraan ñu ne kon lu muy defati ca daara nag bu fa nekkee ay waajuram di dépenser xaalis di fay wala boobu la a jóge ca daara ja daara ja doon daara joo xam ne foofa la mën a yem mënta continuer njàngum xam-xam amu fa ku fa nekk ci doo dolli ko dara dañ lay jàngale loo di la jëriñoo mais mënatuñ laa dolli xismut bu ñuy tax ni ne ulumul sharia amu fa xam lu mel noonu kon fokk xale bi nekk mu tar ju jógee ci daara ji yëpp ay sabab la yuy tax xale yi di gaaw a jógee ci daara ji jógee ci daara ji boobu itam dana tax mokkal gi du dëgëru lool parce que itam li ñuy tuddee ak mokkal yëpp xis awal yi rek la waaye mokkal alquran dëgg dëgg goo xam ne day ànd ak xale bi wéy mënta gàtte nag ci fasara yii waaw il faut xale ba def fa di ko tari di ko tari di ko tari di ko ànd ak njàngum xam-xam wala leneen ba alxuraan bi dëkk li nga alxuraan bi dëkk na ci moom waaw. ba tax am na benn góoru Saloum Saloum bu nekk parcelle ñu andi ko benn sëtam boo xam ne amul sa fukki at ñu ne ko kii mokkal na mu ne kon de du alxuraan jaa xamoon <laughs> mu ne du alxuraan jaa xamoon de alxuraan jaa xamoon daal kii mënu koo mokkal ci waaw mu mën na ko wul la xale <laughs> bu dee daal moom du alxuraan jaaxam kon daal yéen da ngeen am jëlal alxuraan <laughs> waaw waaye wax na dëgg ñoom dañu ko doon mokkale parce que mokkal yi day dem bu ci lu gaaw a gaaw a gaaw xale boo xam ne amagul waa yu sax ci li mokkal dëgg la baax na lool am na mise ci teel gee mokkal mën a jëm ci njàngum xam-xam waaye nag ci kaw ñu téye ko fa muy jàng ñu koy yaraale muy tari alxuraan jooju continuer dafa di tari alxuraan deesu ko mokkal ci jaaxal nu mu neexu la mokkal xam nañu wàcc yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaar fukki at ak nangam hmm? kooku borom bi yombal na mbokkal bi wala xad yassarna alqur'ana li dhikr waaye nag pour mu sax nag dëkk nag sanuqri'uka fala tansa ji nag foofu la problème bi fala tansa kooku yonente bee ko am de yow nag moom dana ciy dëkk rek booy bàyyi di xam rawatina xale boobu nga xam ne mu amagul waayu mën a jàngal boppam buy jógee ci daara ci moom fa lay mujjee laale ci kaamil boo sàggane kon loolu itam daara yooyu nag muy teer duñ fay toog a génne wax naa la sabab yi leen fay jële benn pay ya diis na ci seen i wayjur benn seen i wayjur gëm nañu ne ku mokkal foofu la yem daan lañ ko yóbbu ci atelier bi wala ca marché ba mu jaar yi ne sama doom mokkal la jàng na ba jeexal jeexal waaw sama doom ñibbisi na ci daara ji mokkal na jeexal mi ngi ci bitig bi waaw ku ñëw mu présenté la rawatina nag mu bindu kaamil rek teg waaw kaamil bay diplôme bi ku ñëw mu yëkkati na la loolu bi jeexal na moom kenn rawu ko kaamil la waaw dafa ne soxla ci laaj ci dina mën nañ ko ko laaj bi gëm loolu ñetteel ba itam bokk na ci euh, njàngale mi jafe ñi ciy jàngale maanaam ñu sàkku tuyaaba ci li ñuy def xillatu iqtisaabi al amilina fiha amalahum inda allahi subhanahu wa taala jafe na lool ciy jàngale alquran ci daara yooyu ànd ak li mu ciy jot mu bëtam génn loolu lépp xam ne lii wasila bu koy dimbale mais li muy def ak jaamu yàlla la ñu ci bari dañuy mujj xool makaasib maddi yi lañ ci am ci wàllu matériel loolu ñu mujj teg seen bët loolu ñu mujj teg seen bët ba ñu ca bari sax di jëm ci lépp lu leen gën a luñ ca am ci ay moyens di ko wute lu leen gën a noppal di gën a sax sori njàng ma ñoom ci seen bopp lu ñu gën a am ay moyens di gën a sori njàng ma di wut ñeneen di leen ko taw tawkiil moom nag jàppee boppam patron waaw dem ca leneen wala sax muy tukkee ka duutu tooge waaw ñeneen ñoo xam ne sax amaguñu ahli jàngale mu jël leen am lu mu leen di moo tax bàyyi leen fa waaw moom nag jàppee na moom arrivé na loolu itam bokk na ci tarbiyaat yi ñoo xam ne hadaf lañ ko defoon rek li la wusul ila makasid maddiya kooku su demee ba commencé am loolu day gën a sori njàngale mi te njàngale moom du lu ñuy dénkaane lu ñuy dénkaane ku ko sakoo pour bëgg koo def da nga ca soxla ñu ne ca dimbali mais du egg foo xam ne da nga ca def istixna yow bàyyee ko ñoon saa boo ko defee rek moom bay boo nga ko dara waaw moom du lu borom di bàyyi egg na koo xam ne léegi man man jëratul ma ci xam dara ci bàyyee naa ko ay nit déedéet loolu bokk na ci ay lorom ñeenteel ba bokk na ci itam ñàkk am jubluwaay bu leer ci daara yi boo xam ne xel ñuy yar xale yi ci yenn ci daara yi laa wax am na daara yu amay jubluwaay la koy waral mooy jàngalekat ba ci boppam moo amul mën haj bu leer lu leer ci boppam loo xam ne sax moom ca la ne ba di ca yar nit ñi day ànd ak nit ñëpp daanaka ci lu ñu ne rek waaw wala sax léeg-léeg moom am na lu ne waaye da koy nëbbu ngir mën a jot ñëpp waaw ba ku ñëw ne xale boo ko andil mu mën a ànd ak yow te na nga ko bëggee ma ne amul lu leer loo xam man kat ci lii laa ne ku ma andil nit ak man ci nii laa ko yare waaw ci lii laa yar bu wér loolu daara ji da ko war a am daara ji dafa war a am bu leer boo xam ne ku ko tànn ba di fa yóbbu sa doom pare nga pour sa doom mel noonee wala mel daara dafa war a leer waru ca am lu muy nëbbu te da ko war a fésal ca dama koy doxal bu loolu nit dana génn ci daara ji ba pare yëruñu ko ci benn mën xaj bu leer bu génnee ni société bi nekkoon rek ci lay àndaat nekk waaw ndax gënuñu ko benn yoon wu leer woo xam ne ci lañu ñu ko yar loolu itam daal daf ko war a daal dafa am jubluwaay bu leer hadaf juróomeel ba itam aswaiya fi inshaiha fi dur maanaam tàndale gi am ci taxawal daara yi léegi ak ñàkk am benn contrôle bu ci am ci sos ko ba ñu baree baree bari ci ñoo xam ne amuñu compétence su sos daara yooyu ci wàllu xam-xam amuñu ko ci wàllu jikko parce que yar ay xale war ngaa fekk nga am ahli yi ci wàllu axlaq wàllu jikko yoo xam ne xel nam nañu mu dem ci ñeneen nga doog a war a mën a yar ay nit gannaaw boo amee compétence xam-xam bi waaye ñàkk contrôle bi am ci sos daara yi ba ku mu neex rek def tax na ay nit dugg ca ñoo xam ne dañ ko def rek majaala lil dañ ko defee ëtt boo xam ne dañ ciy na ay tajaawuzaat ay mbir yu garaaw am yoo xam ne sax mi ngi commencé ñaawal même turu daara yu mujj yi waaw li xew-xew yu ci am rek ci bu yàggul di ubbi daara yi internet yi bàyyi fa nit mu def fa njaaxum bu rëy ci ay xale yu jigéen yu fa ne hmm. ngi ne loolu loolu day waral waral nga koo xam ne weesoogul lu mel noonu nga ubbi daara di ko ko jox muy def lu mel noonu ma day na war bokk na ci yi tam léeg-léeg ñàkk yar boo xam ne xale yooyu danañ ko ñàkk yar xale yi génn ci daara yooyu ak ragal boo xam ne dañ ko ragal coono ak gëm ku ñuy gëm sukkandiku ci keneen ndax gannaaw bi ñu ne ci dal seen lépp dañ leen ko yor ba di leen jox sa argent de poche boo xam ne yow sëñ sëñ daara dina ko naan amu ko waaye ñoom dañuy am instant de force xam nga xale bi tàmm loolu yaru ci loolu lu mu manqué la ñu ko ko boo léegi tam duñ ko defloo dara même xadamaat service yi nekk ci biir daara ji dañuy jël ñu tolloog yaayam wala ñu tolloog baayam ñooy raxas dossier ñoo koy lalaatal lalam ñoo koy defal loolu lépp xale bi di ko gis loolu da koy andil kibriya boo xam ne bu ëllëgee day jàpp ne moom ñun ñëpp dañoo xem ci kanam kenn kon da nga ko war a liggéeyal loolu man mi ci daara yoolu laa waaye gis naa ne loolu dafa am waaw rëq la boo xam ne dañ ko war a dañ ko war a jéem a saafara waaw dëgg la coono ba nga xam ci daaru yu jëkk yi ëppoon na waaye moom laa diine ëpp na waaw dafa war a mbir mi dafa digg dóomu isa anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaana bayna zalika xawaama waaw lam yusrifu ñoom ñu dañuy israf yi moom kaanoo waaw ñeew nañoo wartoon ba bopp xale bi du am lu mu lekk du am lu mu sol du am fu mu tëdd loolu ëpp na waaye itam dem ba xale bi fii itam day am lu mu lekk lu mu denc lu mu jogani koo lu mu nekk ni am kooku it ëpp na ndax yar na yar ci wasat yi bu kaana bay na daalika xawaama waaw ba doole loolu nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax a baax la tax ne yóbbu bi tuut ba xale yi ak bisaala goo xam ne ak ñàkk a man dara ku tëlee ku tayal goo xam ne dañ koy gisee ci xale yi di génn ci daal internet yi Euh, kon loolu mooy lenn ci yiñ ci dugg ak nag yeneen yi nga xam ne ñi euh, ciy liggéey yépp xam nañ ko kenn ku ci ne xamal nga ca euh, lu ëpp la nga xam li wolof yi wax ne lu waay wax ci ci toolam la ko gis ma daal li ma wax sama tool laa ko gis waaye ñeneen ñi seeni tool itam am na lañ fa gis <laughs> kon bit boobu moom du buñ du buy jar ku nekk mu ne nawet bi nawet bi tool yëpp dana boy boo du toolam toolam ba dana boy am naa tatalluwaat yi nag mooy yi nga xam ne bëgg nañ faa jëm képp koo xam ne ku maanu ga day wax dëgg yàlla da nga xam ne nag daara yi ànd ak loolu lépp nag am na solo am na jeexit ju rëy itam ci société bi démb ak tey yépp waaye loolu nag bu taxit ñu am jumóot nag maanaam yam ci de fii ñu toll rek ci daara yi baax na ba tax na rek kon baax na noonu nañ yam fii déedéet dama adama toujours daa war di bëgg gën a jëm kanam jëm kanam boobu dana ko tënk rek ci ñetti tomb bu njëkk bi an tataqaddama xutuwaatu islaahi taxfiifi zuuri alquran alkarim hatta tasila ila almustawa almatlub wa an taumma alislahat jamia mansubi alqitaa maanaam jéego yi ñu def ba yegg si fii ci wàllu tajwid wàllu gën a rafetal njàng mi ba xale yi sax di bokk ci ay musabaqaat dawliya xale yaa ngi fi jógee ba dem ba Makka di bokk ci ay musabaqaat xam ngeen ne ci fatara bu néew ci gannaaw rek euh, xale wolof bu jàng alxuraan jàng ca kanamam naar mu bàyyi ko mu eggale aaya ba rek sax daana joxe lool bu ma daa tàmbali jàng rek duñ nangu sax mu yeggal dafaa demee li est-ce que kii li muy jàng alxuraan la wala day làkk aw làkk waaw léegi suñu demee rek ba jeeg ñoom kon wax dëgg yàlla am na tasawur waaye nag bu ñu yem ci fi ñu toll ba tey nag des na ba tey des na ba tey fi ñu war a yegg ci itqaan njàngum alquran maxaarijul huruf baak dapt xiraat ya des na lool lool lool lool lool ba tey waaw parce que li ko waral it mooy ni ñuy duggee ci maydaan bi jàngalekat yi amuñu fenn fu ñu leen di takbiire jàngalekat ba daanaka mustawa ba mu yoroon moom lay indi nga léeg-léeg ka góorgóorlu ba xaw a góorgóorlu ba sax daara ja moom formé na boppam mais mbir ma day def ba ëpp ko mënta ñàkk am ñeneen ñu koy jàppale ñooñee muy am te it amul temps wu mën leen a former te ñu jaaruñu fenn ñooñe bu ñu ñëwee sax léeg dañuy wàccewaat mustawaabu njàng ma nekkoon ca dara ndax daara jële egg ci lim foo xam ne moom ci boppam ma xaw a tane mënatu la jàngal ñëpp mu jële ñeneen ñoo xam ne it formation ba ñu war a am amuñu ko su ko defee loolu day commencé yàq ba tax na waaye fexe itam nag ba la islaaxaat yi muy defar gi ñuy defar matal daara yëpp itam nag ndax xam ngeen ne ba tey defar googu yenn daara yi rek la daara yi yenn daara yi nga xam ne noonu la mel ay internat parce que daara yi may wax ne moom lañ sa suñ bi jaagee di jubluwuma ci yëpp internat yi seeni borom ubbi ñu am luñ leen di fay am na ci yoo xam ne ay kilifa ko ubbi teg ko ay nit di leen dundal ñu fay jàng moom it ci internat yooyu la bokk am na yoo xam ne ay commerçant wala yooyu ñoo koy ñooy dajaloo ubbi di fay seenu jàngalekat yooyu yëpp ci laa ko boole boo wëcc bi yi nga xam ne ab ustaas ko ubbi rek am na ci yoo xam ne ay kilifa yi diine ko ubbi am na ci yoo xam ne ay commerçant ko ubbi am na yoo xam ne ni tey jël benn waaye andi ko këram mu di ko jàngal ay waa këram waaye lépp ci même jàngale moomu la ba tey njàng moom mépp sa astur na ci njàng moom daara Alxuraan yi ci saxawa bi fu ci mën a doon fi mu ne sa astur na parce que il faut muy jéem a rafetal ci wàllu taj bi tuuti donc kuy jéem a jàngale njàngale moo xam ne fokk dara dana ci di génn il faut nga jéem koo rafetal même ña nga xam ne sax xëy dara génn ci kilifa ko fa def waaye bëgg na ña ko jox seeni doom bañ a faa bàyyi daaraam jooju di ko yóbbu feneen moom ne il faut mu jéem a rafetal seet ku mën a rafetal mu teg ko fa waaw moo tax ne kon moo a ci taasur a taasur ci jéem a rafetal googu waaye nag ba tey nag ñu fexe ba mu jéem a matale fépp ndax am na ba léegi ñoo xam ne amuñu moyens man a euh, joxeel seeni doom dara ci xaara yi ñu nekk tey foog seeni doom jàng ba tax ne kër yi yëpp gone yooyu itam amul lu mu mën a jox ña koy jàppale ca njàngale ba tax ne léeg-léeg xale ya ah fokk ñuy yalwaan wala ñuy sonn waaye même daara yooyu tam même bu ca coono yooyu defee itam war nañu fexe njàng ma moom jëm kaw njàng ma moom gën a rafet ñaar ba ñu fexe ba fursa mën a jàng alquran mën a occasion mën a jàng alquran ci anam yoo xam ne yu jaadu la loolu yomb ñëpp loolu société bi war nañ ko def seen fexe ba fu waay nekk mën a jàng alxuraan ci anam yu jaadu ak ci néew bu baax ci ñépp nag loolu ab jubluwaay la loolu war nañ ko def ko ci kanam waaye buñ ne yenn daara yaa ngi kii rek waaye yenn yi moom ñaka mel nañ meloon ba tey ñeenteel ba itam ñetteel ba daaray alxuraan yi war nañoo am nag ay jubluwaay yu leer yoo xam ne ci jëm ay ahdaaf ahdaaf yi mooy xarsu ruux tadayun fi nasa mooy nañ jëmbat ruux am diine ci xale yi xam nga na ko borom risaala waxe boo demee ca mu xaddimu xam nga ne borom risaala ki ko doon taalif wax na ne borom sëñ daaraa ki ko doon taalif loo ni ko daa bëgg su xale yi mokkalate alxuraan jàng ko xam kon bëgguñu xale yi jóge ca daara ja te lam ñu fi diin dañuy bëgg xale yi bu ñu génn ci daara ji dañuy ànd ak tafaqahu fi diin gis nga l'islam Ibn Taymiya xam ne su fekkente ne kat déggoo alxuraan ci jëfewu ko duñ la jàppee yow koo xam ne ku mën alxuraan nga sax kon nag nañu bàyyiwaat xel jubluwaay boobu ba tax ne man am naa sax ay extrahat yoo xam ne parce que gis naa ne xale yi li ma ko waxee yenn daara yi amuñu sax xitmu boo xam ne mën naa continuer xale bi su mokkale te léeg way jur bi du am feneen fu mu ko yóbbu ñaareel ba itam xale yu baree baree baree bari sax léeg-léeg njàng ma day tardé te mokkal ga ba bu ñu fay jógee day dañuy xaw a nekk mag boo daanaka bu ñu fa jógee boobu ci liggéey la ñuy jëm nga xam ne kon jaar na ci daara di ba génn ci mën a am mokkal na wala mokkalul mais dara ci diina xamul ndax jut na jàng dara ci arab jut na jàng dara ci fekk kooku delluwaat ci société bi daanaka la fa jëlee xanaa mooy maqawul ummiya la fa jóge la fa jëlee ca daara ja xanaa léegi mën naa liir mën naa bind ci mbindum làkk ba mu ci wàllu benn xam-xam buy war a mën a taxsir ca la muy liggéey ndax bu tey fi ne boo seetee Sénégal daanaka ñi ci jaarul ci daana bariwul soo demoon sànn ka tey ci commerçant ya wala nga dem ci tailleur yi wala nga dem ci sëfoor yi wala nga dem ca natt nattkat yi xitaa boo ca dem la ci ëpp ci daara yi lu ñu génn waaye melokaanu jikko ak yarub l'islam bu feeñ ca seen loolee ñuy liggéey lu néew la ndax jëlewuñu ca daara ja yawute gu leen may mu man a feeñ ca la ñuy def boo gisee problème yi ñuy jànkuwanteel ci réew mi yëpp loolu la ñu bëree bëri amuñu waa yi ci seen diine amuñu ci rawatina surtout wàllu pas-pas la bokk na ca ñay gën a xóotalaat delloo ko gannaaw sax muy lu bari ci ñu jógee ci daara yooyu parce que ñooy nekk ay sëriñu tariyaax ñu ci bari dañu nekk ay sëriñu tariyaax di jibar waaw di gën a yàq pas-pasu nit ñi xam nga ne kooku génn ci daara waroon a doon ñiy yóbbu daawa bi ca kanam nga bokk ci ñiy delloo gannaaw daawa bi kooku kooku kooku jooju daara itam génn ci wax dëgg yàlla mu bañoon caa dem tax ko gën te mi ngi fi bari génn ci daara yoo xam ne bu ñu génnee xaatim kat dong la ñuy doon waaw waaw man kat dafa wax la xar ko gis nañ ko man kat dafa wax la xar yëpp ci daara yi lañ génn de daara yi lañ génn de waaw kooku nag daara yi seen daara yi war nañoo fexe ba buñ génnee ci man kat dafa wax la xar bu mu génnee ci seen daara bu mu fa génnee. ko am pas-pas bu leer kuy daawa ji leeral nit ñi diine la ciy génne xam ne place bu ne moo xamul téyeer la doon gannaaw bi ndax it nag mënuñoo doon sëriñ yuy continuer parce que société bi ba léegi lépp soxla da koo soxla soxla day téyeer soxla day menuisier soxla day maçon soxla day lépp te ñoo ñëpp nag ay jullit lañ war a doon kon néewuñu daara ji ku ci nekk nag war a dem ba jeexal ba nekkub sëriñ ubbi waa daara déedéet mën ngaa egg foo xam ne da dem ci métier waaye na yóbbaale loo xam ne dana feeñ soo demee ca wala métier ma da nga ca ràññiku ràññiku boo xam ne dañu xam ne yow mii ci daara nga jógee ci wàllu jikko ci wàllu am diine da caa war a tey loolu itam nag kon seen daara yi nañ ko defaat seen yitte parce que borom bi taala la mu wax wa awla ma uniya bihi nnaas wa raxiba fi ajrihi raxibuun isaanu lxayri ila qulubi awlaadi lmuminin li yartaxa fiha mu ne li gën am solo ci loo xam ne kuy daa biire war nga koo yittewoo wala ku bëggub yoon ku bëggub yoon jàngale kat ko alquran bi da bëggub yoon wa raqiba fi ajrihi arraqibun isaalul xayri ila xulubi awlaadi mumin waaw ñett yooyu ñu lim nag liñ am muy ay proposition yoo xam ne jàpp nañ ne ko am bu njëkk bi dimbalante borom daara yi ci seen bopp ci nag nangoo mottali seenu manque waaye nag bu ñu dimbale dimbalanteeg dend rek nawlenteeg comme sëñ daara yu jëkkee nañu daan daara bu jëkkoon seenu xuloo moo daan du ma la laaj masala du ma la ñaan njël waaw xuloo sëñ daara loolu la woon du ma la ñaan njël du ma la laaj masala waaw xam loolu waaye loolu itam daanaka buñ ko waxul it day xaw a am parce que ñu ne bare bare bari nanguwuñ seen moroomam moroomam daara ñëw di am dara lu leen di jubbanti ci seen daara duñ ko nangu da ngaa yor dara nga yor dara waaw <laughs> am ñu la doyloo am ñu ba doyloo rek waaw loolu nag lañ ne ko naqadu daati ci seen biir liñ naan islaamul bayt ak daakili yéwénal néeg bi ci biir waaw buñ mënee am benn sulta académie maanaam masiqa lil qurra xam nga léegi moo am na masiqa masiqatul qurra jàngat alquran yi dañuy am njiit dañu am njiit yoo xam ne dañu jiital ci wàllu xam-xam wàllu compétence la ñuy jiitu yoo xam ne ñooy tëpp daaray alquran yi di def seen kem kattan ci yëkkati jéwo ba ci di jàppale ña cay jàng ci di leen formé di ixtibaar xale ya seet ba far bi mu fi ñëwee proposé woon na fi proposition bu mel noonu ne nañ jéem a amal benn lij na watandiya benn commission nationale boo xam ne daaray alquran yi ñoo koy bokk muy organiser ay ixtibaaraat sanawiyan maanaam at mu ne commission boobu ku ne sa daara mokkal na alxuraan barañ koo nangu daa jaar ci liñ defoon waaw xam nga loolu su amal rek léegi day yëf yi xaw a tegu ci yoon benn commission boo xam ne ba bala ñu reconnaître kenn ak mokkalam alxuraan daa jaar ci waa commission boobu nga xam ne fu ne la ñuy jóge ña koy composé ci atraf yu bari la ñuy te seen xam-xam lañ leen di tànne su ko defee ñuy ixtibaaru xale yi waaye su nga xale bu ne yow yaa koy nattul sa bopp dama daaru ren maa nga mokkal na fi ku itam nañ ci góorgóorlu bu baax a baax tomb boobu nag moom am na nawaat bu ci tàmbali mooy rabitatu madaarisil Qur'an bii sëñ mbokk Aliou Alane Ndiaye ñoom jiite mën naa dox ab jéego ci li ñu wax waaye mu bañ a yem ci robe de fiable ak la ko sosoon rek ci muy coono bu ay jàngalekat doon am ñu gis ne jàngalekat yi dañoo war a dajaloo pour jàppale leen dëgg la euh, hadaf nabil la jubluwaay bu baax la waaye nag gannaaw bu ñu jàppale ci biir nag dañoo war a xoolante waat ci biir nag jàppalante mottalante ci biir ñakkare seeni morom di leen jàngal ci biir def ay dawraat lu mel nii mënoo am dawra bu mel nii boo xam ne rabita bi da koy organiser jàngalekat alxuraan yi dong ne ci ñu organiser dawra bu mel nii semaine doonte dañuy jëli jàngalekat Dakar rek bu ñu ko mënee abbi Mauritanie même même Égypte sax boo demoon ba kii boo ko bindee foo mën a am ay jàngalekat da nga ko mën a am ñu di leen tadrib loolu loolu dana tax rabita di gën a kii islaamul bayt fi daaxil defar leen ci biir gën leen ci jàngale yaat axlaaqiyaatu taalim jikko yi jàngalekat bi war a am nu ñu war a moytoo yenn dóor yi yenn tumurankeel xale yi yenn jikko yëpp ñu jàngale di ko ci biir ku ca génne dana baax loolu rabita bi war naa boo gisee kii ma ci ba léegi lim dugagul ci fànn boobu bu cee dugg gën ma cee gis waaye nag ànd ak dendandoo nii rek kenn ku nekk di ko kooku moom <laughs> kenn ku nekk sama morom gënoo maa nangam <laughs> kooku moom dañ nañu jaxasoo ci biir dimbalante am ay barnaami ju takk wiin am ci biir di ami dawraat ah waaw boobaa loolu liñ netu watani yi boobu li ixtibaar mën na caa juddoo mën na caa juddoo waaw dox na kay ñu bis <laughs> beneen bi bi ma waxoon ne pour njàngum alxuraan mën a matale kooku moom sëñ daara yi mënuñu ko kooku tawiyatu shaab bi jullit ñëpp lañu war a yee xamal leen ne julliti Sénégal ñu bëgg tuyaaba lañ waaye ñu fexe ba dugal ci seeni i bopp ne li gën a rëy ci lu nit ki wute tuyaaba mooy jàpp ndal kuy jàng alxuraan ba mu mën koo jàng ak ki ko bëgg a jàngale moom it nga jàpp ndal ko ba mu mën koo jàngal ku ko bëgg doon du ko jox dërëm ñu fexe ba julliti Sénégal yi loolu ñu ko ci seen i ñu ciy dépensé seen alal loolu itam dinaa leen ci bëggale moom it am na mbootaay bu ci jur parce que daara ji ñaar la islah fi daaxil kooku ñoo ko mënal seen bopp ci rabita boobu lañ ko yaakaar ak yeneen rabita yi mel ne moom ak islah fil xaarij kooku mënal nañ ko seen bopp borom alal yeeg homme d'affaires yeeg képp koo xam ne kilifa yeeg ñi ci biti ñëpp ñëpp def ko seen soxla kenn ku ne la nga mane nga dugal ko ci daaray alquran ka am baat la ca def baatam médecin am collectif de médecins yoo xam ne am nañu mbootaay pour jàppale daara yi kee noonu kee ko am na lu ci judd tomb aw jiwu wu ci tàmbali moom li ñuy tuddee jamaatul quraanil karim ak mbooloo la gëstu bële boo xam ne ña ko sos du ñuy sëñ daara ay homme d'affaires lañ bu ñu wax Moustapha Lo boobu gis ay homme d'affaires la ak ay médecins ay fonctionnaires yoo xam ne ñoom yaakaar ñu benn dërëm boo xam ne bu leen ci jógee ci njàngam alquran la am nañ seen salaire am seen i yëpp yeneen yu bari mais gis ne dañ cee war a jàpp loolu itam su wéyee yaatal ko fi na ay médecins yu bari duggagul nañ ca yoo xam ne am nañu mbootaay goo xam ne ñoom fu ñu leen ne leen daara sàngam kat soxla nañ fa docteur yooyu ñooy daal di yebal équipe boo xam ne ñoo fay def waaw équipe ba suñ fay def compétence yëpp cay def dentiste da cay yëpp dañ cay def loolu bu ñu ko amoon ci fànn yëpp doon ci amaguñu doole nag ndax tësagut ci réew mi mais loolu dafa war a tax ci réew mi lool ba ñëpp yëpp bokk na ci ay jubluwaayam moom mbootaay googee njàngaleem alxuraan fi egg fépp parce que li ñuy tudde classe politique wala classe intellectuelle gi nga xam ne la ñu jàng te ci biir société bi la ñu ne ñooñu mënuñu leen a génne ñoom ñëw bokk réew mi su fekkente ne fekku fekkuñu ba alxuraan egg ci ñoom njàngum diine egg ci ñoom du ñu denc ami problème ci daawa bi di nekk gàllankooru daawa bi te ñooñu bu ñu dem daal xam ngeen ne femme résidence benn année du fa jógee di dem daal waaw ku fi mën a waree ci daaraam mu ne ci doomi ministre sàngam ne ni sama daara dafa jafe te ñooñu dañoo war a jàng alxuraan léegi nag ñu ne ñooñu dañ leen war a fekk ca fañu ne ca quartier ya ñu ne quartier ya ñu ne jàkka ya fa ne ñu yóbbu foofu jàngalekat boo xam ne na muy amee ci Arabie Saoudite bu ñu jàngee seen école français yi ba ngoon diggante takkusaan ak timis donte ñaari waxtu la amul jàngalkat bu nekk ca jàkkee quartier ba xale ba jóge kër baayam ñëw jàngi na français ba ñëw ñëw ca daara ja jàng fa lu la muy jàng lu tuuti tuuti su ci primaire ba ba muy egg baccalauréat bu mokkalul alxuraan yi dana sori loolu kon kooka su demee ba nekk fonctionnaire nekk ministre nekk cadre tey waaye jaaroon na ci daara ju mel noonu kon jafe-jafe yi ñuy gis yëpp dana fam dana gën a yombal doo am loolu jamaatu quran boobu itam bokk na ci seen i loolu bokk na ci seen i seen i jubluwaay kon loolu ci sa li tahqiq ahdaf yooyu bu bi muy fexe ba jàngalekat yi yëg ne dañoo war a am i ahdaf kooku ma gis ne ñoo ko war a gën a taxawee benn tomb bu am na ñu ma ko tos waaw bu njëkk bi jàngalekat yi islaa seen bopp ci seen biir waa rabitatul quran sas naa léegi ko fexe ba nit ñëpp yëg ne njàngum alxuraan dañ ci wàllum responsable lu waay am def ci lu waay man def waa jamaatul xuraan boobu ñu ngi leen ci yaakaar ak ñeneen ñu mel ne ñoom taw ay jàngalekat yi nag bañ yor masrooru daawa bañ xam ne seen liggéey bii ñuy liggéey du xaayale xaddi zaati njàngaleem alxuraan rek hadaf boo xam ne cëppaandaw la fana mbir ba yem déedéet waaye benn mbir la ci min masroo daawa al kabir projet daawa bu mag bi ñu yor nga xam ne ku ne tey liggéey jàngalekat alxuraan yi ñoom it dañ cee yor ab xaaj kooku nag moom it doaat yi doaat yi nekk ci xarakaat islamiye yi ak doaat yi bi di fa am na ñoo war di dem ci daara yi di leen tawiya di waxtaan ak ñoom di leen yee yu bari ba ñu taban nii manhaj salim jubluwaay bu leer ci wàllu aqida ak ibadat ak yépp ñu ci yar xale yi ci biir daara yi doaat yi di leen fa dimbali daaya bu ci dend ak daara joo xam ne koñ bëgg dëkk daaraa nga fa nga fay tatawoo di fa di joxe ay cours wala ay waxtaan rek léeg-léeg borom daara jigéen ko bisu alxames bu ngeen jàngale bu dee yow daa ya bi nga ñëw daje fa dajale ma xale yi mu dajale nga waxtaan ak yi nga xam ne sart ya waxtaan ñoom ci aadaab yi loolu yow daa ya di nga dimbalee ko jàngalekat alquran bi ah, di ko ci puus dànk-dànk na muy def bu ko contrôle it damay gis ne mu koy réglé rek xale yi ak xale yi ñu tëwul ñu commencé mu gis ñuy yaw ak di fan ko waxtu julli tax mu sawar ci leen koy dimbalee kooku itam na ci na ci ne ko doxaat yi ñoom it buñ jàpp ne moom duñ du ñuy sëñ daara rek noonu ay stage lañu ay kii lañ déedéet mais jàpp leen ci yéen itam ab ngeen jëw ko kon bu ngeen ne daara alxuraan ne ko fekk leen waxtaan ak sëriñ daara bi di ko may ay ay ay waxtaan wala ay cours di fa dem daal di ixtikaaf ak moom wala sax sëñ daara yi na ci wax ba ne leen ngeen dajale leen waxtaan ak ñoom jël benn seen waxtaan seeg ñoom yuñ gën a saw ba ñu parce que lu ñu gën a yeewu yeewute boobu ci diine gën a feeñ ca daara loolu daal ba daara mën a def li ko tax a jóg ndax alxuraan kat li ko tax a wàcc dafa leer kitaabun anzalnaahu ilayk lan li tuxrija nnaas min azulumaati ila nnuur alxuraan loolu dong ko tax a jóg waaye fekkee nit ñi dañuy dañ ko jàng mën a def ca zaraam bañ def ah amul te li tuxrija nnaas min azulumaati ila nnuur bi idni rabbihim ila siratil aziz alhamid ci mujj nag kon daaray alxuraan daal bi ci fa am ma sama weesu nañ wax tuuti waaw daal mi ngi jeex sax daara alxuraan bi ci fa am na muy ca yu jëkk yaag yi ci digg beeg yu léegi yi yu yàgg yaag yi ci digg beeg yu léegi yi yépp joxe na ay résultats yoo xam ne yu am solo yoo xam ne ay yi tam mën nga koo daj fu ne ci mboolem jawaanibul xayaa ci wàllu diine ji parce que lu bon bon itam nag ñu baree baree baree bare la xam ci diine ku si néew mën a tari fatiha fàlla xëy naas ci daara lañ ko jëlee kon lu bon bon daara ji am na lu des ci ñoom ci diine tuuti ñaareel ba itam ci wàllu saqaafa maxwul ummiya lu tax ñu baree baree bari tër ijji buñ dee commerçant donte bu ñuy bind seen yëf ci wolof lañ koy bind wala tukulóor it waaye urufi arab yañ koy binde daara la ko lañ jële niveau boobu maxwul ummiya gii gouvernement yi di yittewoo léegi Nations Unies di ko woo nga xam ne ci lay natt aw xeet ak jëm kanamam kooku li ci daara liggéey nii waa ne beneen école bu ko ci liggéey te yu jëkk yaa ngi mujj yëpp liggéey na ci lool xam ngeen ne bari waa tey nit ñuy dimbalante ñoo xam dañ naan ñoo bokkoon daara sama mbokk daara la daaraa leen boole woon ay nit mbokkoo mayan tey soxna tuddeen tey doom jàppalante ci wàllu liggéey te lépp daara moo ko kon liggéey na rool bu rëy wàllu social wàllu social ay aataaram feeñ na ci lool wàllu économie itam noonu xam ngeen ni ma ko waxoon sàq li ëpp ci économie bu réew mi parce que économie moom mooy nangoo ñàkk te dongay daal yi kenn gënul leen a nangoo ñàkk ci biir ak ci bitti xam ngeen ne moodu moodu yooyu gën a réussir ci mu wàññi jóge ci daal waaye moodu moodu ya doon booy Dakar bu ñu demee ñu te bari ñu fa tekki daal waaw dañuy doon sax doon booy état bi dañuy far doon wala booy booy kenn waaw loolu <laughs> mooy Dakar <laughs> ñu ngi te caaxaan kon yooyu yëpp ay asaar kon nag liggéey boobu nga xam ne mi ngi koy liggéey ci société bi te dañul di ko liggéey na ci ñëpp jàpp ñëpp def ko seen soxla ndax alxuraanul karim kat ni ñu ko waxee mooy cosaanu xam-xam yëpp suñ tubaa wax ne ko kitaabu xayril waraa aslul ulumi maan huwa alkitaabu allati man raddahu xurima waaw téy la boo xam ne ku ko wan gannaaw ñu xaj la lépp lu baax dégg ko huwa alkitaabu allati man raddahu ku ko delloo ne man bokkuma ci xurima ñu xaj ko lépp lu baax kon nag bu ko kenn delloo nit ñëpp bokk wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon sëriñ Ibrahima